إني أخاذب النصارى ترى في أرضهم لمالك مصرى إني أخاذب النصارى ci waxtaan bu baax ngir ñu mëna yewu xam kuy def dara wala ngay dox ci dara nga xam loolu mooy lan ndax bari waana kuy dox ni man ab taalib serigne touba la wala mourid la waaye dëgg-dëgg gëstu woo mbir mi nga xam ne si moom nga war a àndal ba xam fi ci teg sa tànk xam ni nga koy doxee di nekk ci mbir nag ba weddi ko ba pare te yëgoon ne weddi nga ko jamono ji boo dee xool lu bari bari bari ci nit ñi moom la ni dudd kon yàlla yàlla musal ci loolu ndax loolu la muy jural nit ki mooy euh, li alquran wax ni li nga xam ne yàlla da leen di mere te bu ëllëgee dañuy perte mi ngi mel ni ku taxaw ci ab tali yoor yoor nga xool fa sa bët yam nga mel ni lu gis ndox fekk nga mar nga naan su ma àggee naan nga ñëw fekk doo fekk dara loolu defe naa ne olof da koy wax naan ndoxum jinne ci tali yàlla na ci yàlla musal nga xam ne naxee mbaay lay mujjee yàlla na yàlla musal ci loolu kon euh, loolu ci loolu bi nga xam ne Seydina Omar nekk na ci loolu wax nañ ni keroog ba koy fexeel moom Seydina Ousmane euh, kaw gaw këram ñeen fukki fan ba keroog biñ koy rey moom Seydina Ousmane fekk mi ngi jàng alquran yem ci afa xasibtum annama xalaqnaakum abasan ñu jëm ko fett dóor ko benn xibra muy fett boo xam ni biñ ko ko jëmee ci dënn beneen bi ci digg ginnaaw moom Seydina Ousmane deret ji sànni ci kaam ci kaamil bi kaamil bi ba léegi boo fa demee da ko fay fekk loolu loon tuure deret yi kenn ci saxaabay Seydina Muhammad rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam Seydina Ali kazalika naka noonu nga xam ni ñoom kon xam ngeen ni seen coono ak seen jëf waaye dañoo gëmoon ni ñoom euh, lii ñuy def danañ ci am ngërëmal suñu borom te alquran wax na ko wala taxsabanna alladina qutiluhum fi sabilillah amwaatan bal axyaan inda rabbihim yursaquun ñi nga xam ni dañoo jaayante jël seen bakkan def ko ci islaam nee na ñooñu boo ëllëgee suñu borom da leen di bégale àjjana moo tax xaswatu badar yàlla bi mu kontaanee nga xam si manam jullit ñi am nan ngañaay lu mag li am al muy al badrul al kubra eh, dafa wax yonent bi sallam bu xare bi jeexee bu leen ko ci jullit ñi di leen di defar jël leen ñëpp rek ngeen wàcce leen ci genn kàmb bu ki len kenn ju leen bu leen kenn sànq ndax boo leen dañuy kon garab bu mag la boo xam ni sallam suñu borom defaloon na ko nga xam ni loolu dafa kéemaane waaye nga gis ni ci biir loolu ñooñu nga xam ni ñoom loolu daloon na leen danoo nekkoon ay nit yu dëgër ay nit yu mànkoo ay nit yu ànd yoo xam ne danoo boole woon seen force seen kanam ak seen ginnaaw ba tax na loolu da nga koy gilee ci arab yi nga xam ne ñoom daawuñu war li ñuy nekk nekk ay yéeféer gëmunu woon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daawuñu tas yaakaar li ñuy nekk nekk ay yéeféer daawuñu mayee di ko nangu li ñuy nekk nekk ay yéeféer daawuñu yàq der wala ñuy jëw waaw ba fii bu ñu xoolee ñoom seen nekkin wooyu nga xam ni dëkk na woon ay nit ci islam dëkk na woon ay nit ci diine waaye dañ daan jëw dañ daan indi ay jafe-jafe yoo xam ne kéemaane waaye yahud yi nga xam ne si ñoom ñoo gënoon a yeewu ci yooyu jamono ñoom dañoo ñëwoon ngir dàkk si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam diggante makk ak Medina bi ñu ñëwé sanc ba nopi waye dañu gis ni arab yi seen biir xam nañ ni am nañ alal waye seen xel taxuloo na yewu noonu bu baax ñu leen di jaxat seen biir di xeex kon yow yi kon yàgg nañ ci loolu nga xam ne gis ngeen ko jamono ji ñu toll am na réew yoo xam ni boobaak léegi ëpp na 30 ans yàgg jàmm amu fa dëkk yi tasaaroo na ñu nekkatuñ fa lenn amul ba siri yi rek nga xam ne yaa ko gis ngeen ni mel te loolee lépp nag liggéey yahud yi la yonent bi ne bi mu ñëwee ci stratégie bi mu indi pour mën a jubale nit ñi indi leen ci leen diine dafa ne bugguma dégg kenn naan xasd rek ak as aus maanaam affaire ethnie dootul am الناس شواسية كأسنان المشبي لا فضل لعربيين على عجم إلا بتقوى نير نيك نيب نيون دولو نيون ماسك كم ني peñe bi nga xam ne si wala brosse bi ngay brossoo sa bopp ni mu tolloo bëñ ni mu tolloo nee nit ñëpp mën a toll muy nit ku weex gënal nit ku ñuul nit ku ñuul gënal nit ku weex ngënal daal ma ngi ca yàlla daal ni nag bis ni ki tey tudd naa leen al lamsaar kon bëggatumaa dégg xës rek bëggatumaa dégg aus gis ngeen yonent bi kon ni mu def nga xam ni loolu la daal di def nga xam ne loolu da ko daal di effacé Euh, loolu lépp boo gisee ñu koy jàngale danoo bëgg a tàmbalee ci kaw bu ñu ñëwee ci suñ Tuubaa ngeen xam ni moom mooy waarisul kaamil moo doon rasulullahi sallallahu alayhi wasallam ci ay mbindam ci ay jëfam ci ay ni mu yore ay dongaam ni mu doon yoroo ci moom ak ni mu leen doon jàngale ak ni mu doon jaxasoo ak ñoom loolu la yonent bi sallallahu alayhi wasallam di leen woote ba noppi di leen seexale di jël kenn koo xam ni am na alal ne ko àndal ak diw nga jël alal ànd ak moom di jaxasoo ak moom boo ko tonee di ko dimbali te loolu xam ngeen ni almuawana dafa bokk ci islaam euh, loo xam ni euh, yonent bi saa sallam da ko digle alquran digle ko muy ay jullit suñu nekkee li waral ay julli àjjuma wuri julli mbooloo waral jullit ñi di jaxasoo ci seen biir daje ci barab bi liñ ci jublu mooy kenn ku ci nekk la nga mën ci tane ko ci sa moroom nga def ko te yàlla tax te nga koy dimbali dimbali goo xam ni maanaam ca la ko ko tenee ba noppi maanaam doo ca xool dara waaye da nga def ngir jëmbi yàlla ci te loolu nag boo dee xool lu yombul te jafe la jamono ji ñu toll nga xam ni ay gàllankoor xew na ci. Euh, noonu xam ni la dundee ba bi ñu mooy ñeenti saxaaba yooyu wax Xasan seen nekkaay xam ngeen ni neexul woon ak mbokki arab yi nga xam ñoom ñoo fi nekkoon nga gis ñu dale seen kaw ba jàpp Xasan posone ko fexe ba fay jabaram mu posone ko ci tam xarit mu faatu. Hussein bi mu demee Karbala gis ngeen bi ñu ko woowee li ñu ko wax dañ ko bind laaj ne ko sa maam lañ yaakaaroon ne ko fi saxaaba yi jàll nag léegi ko ñu ko léegi nag bu ëllëgee bu fii jàngal la sa diine yi maam ñu gëm ko ba noppi ànd ak yow defoo ko nga bàyyi ni fii ñu réer bu ëllëgee bu demee ci sa maam lu nu yàlla wax yow la ñuy wax ne yaa nu seraam Ah, xamoon na ni loolu day def parce que yéen ko am xoon na ko demee ba loolu am bis boo demee fa ngay faatoo gis ngeen ni ñoom ragal woon dee waaye fi ñu bi ñu toll nii fi ñu koo fi ñaanal ni ko yàlla nga gudd fan yàlla nga am xaalis yàlla nga yàlla na yàlla nga dee kooku ci yow te il parce que dee mënoo koo dem boon àjjanam wala nga faa faat bala nga faa dugg dafay faat waaw dangay daal di gis sax olof di ko faral di wax pour ne ma jënd jaale wala naan lépp yi waxi olof la yu rafetal rek waaye yàlla moo xam kañ la la ak fan la ak naka la loolu il ñu koy delloo suñu borom waaye olof nag boo xam si maanaam boo ko jëlee ba dugal ko ci wàllu sharia wala islam dafay daal di loo xam sax dañ koy tere bokk na ci sax di ñaanal nit ki ay at yu mun a am yàlla nga dund ñetti téeméeri at ñetti junniy at loolu nag suñu borom mën a def xar baax di dund ko waaye am na yoon ci ko dundoon waaye jamono yi ñu ko toll sax nga gis ni maanaam ñàkk a wér gi ci doomu aadama yi pour dund sax 90 ans sax yombatul 92 yombatul 70 yombatul la ko waral moom mooy xeeti dundin yu njëkk yi ak léegi dafa am wuute. loolu dañ cee war a jànge lu bari noonu la yonent bi mel ñoom demee moom Seydina Ali karamallahu waxoon na doomam yooyu na ngeen na bàyyi xel na ànd na booloo yow Muhammad na nga déggal say mag ànd ak ñoom ñoom nañ la yërëm di leen yéen ñaar na ngeen jàppante na ngeen ànd te ñoom demoon ba seytaane dugg seen diggante ñoom Xasan ak Xuseyn ba doon tuddante yooyu yëpp seytaane ko def te ñu koy def ay nit la kon seytaane yi ñu ngi ci biir nit ñi loolu nag di nga xam ne islaam du mës a noppalu ci loolu ndax gis ngeen kuy def lu baax wala ngay jëf lu baax xam ngeen ni noonu du la mës a bàyyi ndax noonu li mu bëgg mooy koo xam ne dafa nekk ci safaan gis ngeen ko fii ci réew mi ak yeneen yi réew tey jii boo gisee ñi nga xam ni danoo sàggan ci seen bopp ñu tudd leen ay barbode wala ñi nga xam ne si bëgguñu ci seen bopp dara duñ sol yére yu baax duñ duñ duñ nekk ci nit ñi di def yu baax du sangu di di di di di drogué wu di def yeneen i mbir ñooñee ñi nga xam ne ñoo yor sécurité ak ñi nga xam ne ñoom ñooy superviser nit ñi buñ leen fekkee ci barab duñ leen sax xool dañ naan kon ñii moom jërëjëf noo waxam ñun daal ñi ni seet mooy ñi nga xam ni xam na ni ñii am nañ classe ba noppi neex na noo xool kon ñooñu ne nii luñ bët seen biir xool ba xam lu mu nekk. loolee leen dafa yàgg ci islam kon kon ak koo xam ne mi ngi dundee islaam doo mas a noppalu ko waaye tamit li ngay def moom mooy nga doyloo yàlla ci say jëf ak ci say wax say toxalin ak si lépp noonee la saxaaba yi nekkee woon di ko jëfe ci seeni i guddi ak ci seeni i bëccëg am ay coono am ay jafe-jafe di leen di sonal di leen rey moo tax gis neen naar yi ba léegi duñ mas a noppalu seen dëkk yi ci yëpp ñoo leen faat ñoo leen sonal dongal leen di leen indil jafe-jafe ba rendi leen ñii ñu jël leen posona leen ñii ñu bett leen dóor leen i jaasi ñi ñu fett leen loolu lépp yàlla fekk na ko xam nga ni kon loolu te kooku ñooñu ay nit lañ yoo xam ne suñu boroom moo leen yónni woon waaye da leen a bàyyi nit ñi gis ngeen Seydina Nuux alayhi salaam ba mu demee ba mu ne metti yàlla daf ne ko loo bëgg mu ne ko man de ginnaaw dama leen di wootul ma man xam nga ne moos ñett ñett ñetti junni at nga koy wooti amoo lu ñu juróomi téeméeri nit di des ñëpp lànk di yuuxoo di la baraawoo toppatawun la munu yàlla ni man lin may def nakari dama munu ko loo bëgg munu ko da ngay wax ndox asaman ci li fi nekk ci ndox lépp ubbil ma ko mu wàcc li ci suuf lépp génn ko munu ko ku la gëmul rek bu soobee yàlla dina am problème loolu nak ci xikma sun borom la daal di musale ñi nga xamni ñom ñoo jàll kéro looloo tax sëñ Tuubaa di wax wax bu sori ci muqaddamatul am daax naan nubuwatuhu khablal baraya khadim jalat lahoo saqafu al-jadd fi tiin yuxsinu waxul nit yu aadama yi aadama yu njëkk yi la wax Seydina Nuux mi jiitu woon nga xam ni ginnaaw Nuux la ñëw euh, nit yooyee sëñ Tuubaa nee na ñooñee nga xam ne suñu borom dënoon na leen ban ba nee na wattu naa ko juróom-ñaar fukki junni at kon nag bu bala ñoo dugg ci moom ñu xam kon tolluwaayam moom ak fi mu tolloon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon moom mooy alwaarisul kaamil ci jamono ji ñoom ñu toll xam ngeen ni euh, nit ñi dañoo mel ni ku gëlëm ci biir la noppi di ko yàq mu jàgg mu mel ni kuy xàqtaay ci la suñ boroom daat ni kon nanu araamal sàngara loolu danga koy gis ni que dafay bokk ci li nga xam ne si maanaam bokkul civilisation ndax luy dem lu soppi nit ki dem ba koy daal jox yeneen i paroles yoo xam ne bokkut moom nga xam ne bu loolu reesee bu ne ko yaa ko waxoon mu ni du mat looloo tax mu ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni kullu muskirin lépp loo xam ne bu ko nit defee dana tàggoog sa loolu dafa xaraam moo xam li ni jël di ko fóon la moo xam li nga xamee ni si da nga koy jël def ci ay say pexe ba tàggoo sa sago moo xam nga xëcc wala nga jël ay nenne di ko wann yooyu yëpp dafa xaraam kon euh, islam dafa yàgg am ay yo xam si ay méthode yu yàgg la gis ngeen ba ci weñ rek weñ weñ yonent bi sallallahu Alaihi wa sallam ba muy wax ni weñ bu fekkee ni dafa naaw takki sa soow wala ci sa ndox parce que ci biir mu dugg ci ba baax ba pare nga nga dog koo génne sànni ko bu la sa xel mayee ndox ma nga naan ko wala bu dee am soow loolu lan moo taxoon ba ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam di wax yàgg ko ndekete weñ ñaari laaf yi benn bi dafa am microbe beneen bi moom mooy rey kon bu fekkee dafa tàbbu ci sa soow wala ci sa ndox da ko ci bës bu ko defee laaf bi nga xam ne si moo am microbe bi beneen bi moom mooy rey jàngoro jooju nga doog ko jëfandikoo te ko bëgg yonent bi da yàgg yàgg na bokk na ci xam ni waxoon na ko moom Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam muy lii nga xam ne mooy mbaam xuux bi koy tere ne bu leen ko lekk ndax am na ay jarasim am na ay microbe yoo xam ne ñoo nekk ci moom bu ko nit lekkee du bala moo dugg sax ci sa yaram day daal di jël zineb bi daal koy tàmbalee muntu dem ba nga xam ne daal di verte boobu yàggoon na lool moom Seydina Muhammad rasulullah sallallahu alayhi wasallam waaye dem nañ ba science jiitu ko wàllu euh, shajaay yi muy tux muy tëdd xiib nga xam ni waxoon na ni nañ ko bàyyi ndax day dem ba nga xam ni dënn yi lay yàq nga xam ne kon ñoo eh, li nu doon dafa yéeme wax na ni bi Ibrahima Fall doon wax loolu mu ne ah ma gis naa ay bàmmeel yu sori ngir wut alal waaye xoolal jamono ji ñu toll eh, eh, li nga xam ne mooy immigré clandestin bi nga xam ne moo fa xew boo dee xool ñaata nit ñoo faatu ci àll bi kenn xamul luñ toll dara waralu ko lu dul mu ne bàmmeel yu sori ngi di may gis te dara waralu ko dul alal mu nit daal bu góorgóorloo nangoo liggéey ba noppi am jom toola ba noppi nag li ngay am mu doy la loolay jafe nag ndax dangay nekk gone nekk ndaw bëgg a sëq léegi ci wàllu alal fees dell mu wër la loolee nag ñaare bu fekkee ni da koo bëgg am lu bari mën naa dox sa digganteeg li nga xam ne moom ngay dikk loolu nag bi nga xam ni yooyu jàll na ci ay science yoo xam ni dafa dox ci biir nit ñi dem ba nga xam ni euh, gis ngeen ni tey jii danoo wax ni bu fekkee ni rab bu mu mën a doon bu ñëwee ci sa ndab wala ci sa bool dugal ci làmmiñam wala mu dugal ci gémmiñam naan fa wala mu lekk raxasal benn yoon rek dem waaye gis ngeen xaj yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxoon na ko mu ni xaj su ñëwee ci sa kër dugg ci sa kër sa kër lekk ci sa ndab wala mu naan ci sa benn ndab danga koy raxas juróom-ñaari yoor benn ba nga defare ko suuf ndekete ndekete suuf boo fekkee ni xaj dafa lekk fenn dana fa bàyyi ay microbe waaye boo raxasee juróom-ñaari yoon juróom-ñaareel ba nga jël suuf def ca microbe bi ci boppam suuf see koy rey te yonent bi tuddoon na loolu bu yàgg kon wa allamaka maa lam takum taalam loolu la sëñ Tuubaa wax daal ni wasala lil xaqu min al xaq al mubiin li xaada maa baana wa maa laysa yabiin waaye la ci yéeme moom mooy allama nii maa kaana xabla al xalq yàlla xamal na ma lu njëkk muy bind aadama mu njëkk ma man kaana lii bi karamin wa tilqi ci la ma teral man sëriñ Tuubaa ba noppi ci la ma boyal waaye gis nga kuy neexal moom la ngay neexal mënul neex ci yow jëlal cin mooy togg waaye dañ koy lakk rek bu mu ñuul kukk waaye suñ paree ba xóoj dañ koy bàyyi foofu ca waañu kenn du ko da toppatoo pare nañ ci moom ceeb bi neex na rek ngay dégg waaw loolee la ko waral moom waaye ba mu xamee ni moom ñi nga xam danoo wëq wut ci ko te ñooñee kenn ku ci nekk am na loo bàyyi dangay ngay ñëw nag mu defal la loo xam ne boo delloo say mbokk yaa fay gën yaa raw yaa fay man nee na looloo taxoon mu jëkk jël ci baaxug maam Cheikh Ibrahima Fall ak gore gum gore daan na wax Serigne Touba ni ko defaral seex ndax soo defaree seex ko ko gis dana xam ne am na mag ju baax xam ngeen ni euh, loolu mooy ànd loolu la yonent bi boole woon saxaaba yi nga xam ne noonu lañ woon waaye noonu la doon def ba nga xam ne ci nit ñi nga xam ne dañoo àndoon ba nga xam ne dañoo booloo woon kenn ku ci nekk loo yéene sa bopp da nga koy yéene sa moroom gis nga la mu wax ci xoqal bu kaw yaraw na un fasoom duna al wala abadan wa annahum lam yaliqu bil karamati bokkut ak wa annahum lam yaliqu bil ijaabati nee na ñoom kenn ku ci nekk gisoon nga ci sa morom ni li ngay sàkku ak di ko wut sa morom mën na la koo ñaanal nga am sëriñ moo tamit Fall yàlla yàlla yokk benn gàmmu ci kees ziar nañ ko ànd ak waa rajo Lamp Fall di ko ñaanloo sëñ bi ni waa baax na toog tuuti ñu toog tuuti mu ne na ngeen dem ànd tàbbi ca waañ wa ñay defar kafe yi ñoo ñaanal leen bu ko defee maanaam seen li ngeen seen nga gis ni fekkoon boobu yonent bi saa sallam waxoon na bu yàgg ni xayru naa si xaadimuhum ki gën ci nit ñi mooy ki nga xam ne bu ñëpp toogee ngay liggéey Cheikh na Fall daal di jël loolu muy yoon woo xam ni moo gën a gaaw ndekete àgg ci suñu borom subhanahu wa taala euh, looloo taxoon na jaw baxa di ko wax ni ko ah moom de lii wértuwul mooy damaa bëggoon bu ëllëgee nga yëkkati sama ni sa wëllëg loolu la ko waral moom mooy fa mu tolloon ci suñu borom ak jeex gi mu jeex ci yàlla ak ni mu nekkoon di ko liggéeyal liggéey suñu borom bi subhanahu wa taala ak nga xam ni amul génn ngistal ci biir te loolu nag du lu yomb loo xam ne nit da koy mën a jëf ndax lu diis la xam nga naafeq dafa bëri doole naafeq dafa am ay jumtukaay yoo xam ne da koy yor te jumtukaay yooyu benn bu ci nekk mën na koo utiliser dajale ko ci àdduna loolu la iblis wax iblis nee na am naa benn fett boo xam ni saa su ma ko jëlee diire ko du mos a moy ñu ne ko lan la mu ne mooy jigéen gis ngeen ni tas na àdduna bi nga xam ni kersa amatul ci diggante góor ak jigéen te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndekete waxoon na bu yàgg ci benn discours bu mu defoon Serigne Samba yàlla yàlla yokku leeram nee na yonent bi saa mas na taxaw ci xutba di xutba di xutba ba tisbaar mu daal di julli daal di tàmbaliwaat di xutba di xutba ba tàkkusaan mu julli daal di xutba di xutba di xutba ba timis ba gee mu def noonu julli safaak witar waaye nee na ba mu jullee si fago ji ba noppi tàmbaliwaat di xutba fa la daal di waxee ñi nga xam ne ñoom ñooy nekk ci adduna bi di ko yilif di ay nit yàlla yoo xam ni ñooy wuutu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na dem na bay tudd seen turi ndey tudd seen turi baay nee na ba tudd Serigne Touba mii tudd soxna jaaratullaahi mu reeba béso ak mu war a ndasali waaye jamono jooju nit ñi ci boppam du ñu xam tur woowu muy tudd ndekete boobu xamoon na loolu bu jëkk waxoon ko nga xam ni kon nitu yàlla yi kon amna lu leen di bolé lo xamni mom ci lañu ñuy ci seen biir nga xamni ni ñoom bu ñu ci ben barab ndax da dafa wax ni kon nitu yàlla yi bu nekk ci seen biir ñoom ñaar kallamu awliya siriyaanu nee na nitu yàlla bu fekke ni kenn raxu leen amna ben lak làkk bu wax siriyaan lak bobu la ñuy làkk aljanna wax na ni ay nitu yàlla suñu teewee te kenn raxu leen mom la ñuy waxtaane seen biir wax na ni ay bàyyi ma sax ñoom mom la ñuy wax nga xamni ne ñoom duñ wax fi waye bu ëllëgee dañuy wax kon ñoñe nga xamni loolu mo leen bolé won nga xam ni fa lañ doon gisantee nga xam doon gisantee ci saayar jëlal kenn sa njiiri waa daan sugu sa njiiri waa daan sugu wax nañ ni sunu borom moo ko wax ni ko demal nga topp Serigne Touba nga jox ko sa bopp ci àdduna ndax boo ko deful ci àdduna boo ëllëgee di nga am gàcc te boobu Serigne Touba mi ngi ci géej moo tax li mu juróon lépp da ko doon tuddee Serigne Touba te gisul Serigne Touba bu dee jigéen lépp mu jox ko soxna jaara xam ngeen ni loolu dafay doon firnde ci biir loolu waaye gis nga Cheikh Ibrahima Fall la ko Serigne euh, suñu borom wax tegtal ko yoon wa aw murit di aw baraw te aw murit ba am ngërëm bëri murit te doo tëree jaxte ki yendoo liggéey fanaan biroor ba gaa yi nelaw ba naan kuréet ba gaa yi gën a kurkuréet moo ko xewal daawul dox nga moo ko tegtal loolu ni ko demal nga seeti Serigne Touba nga liggéeyal ko moom mooy ngënal ci yow ndax li nga bëgg ci yàlla foofu nga koy mën a amee gis ngeen ah loolu nag dafa doon firnde boo xam ni dafa yéeme ndax wax na ni ci nekkam ci àdduna Euh, kenn ku ci nekk fenn fu ci nekk dafa doon dem di ko xool ngir xool kuy Serigne Touba ak fan la nekk. bi mu ñëwee Saalum ci Serigne Moustapha Mbaye Touré waaye bu mu xoolee nee na dañ koo tegtaloon xamal ko ni ko ki nga xam ne moom ngay seet nga xam ne moo war a nekk ci sëriñ ci àdduna moo tax daana wax ni man doom judd naa fu ne ku ne jur na ma maa bëri xabru waaye ko kenn du moom kon nga xam kon dafay yéeme ay mbiram waaye nekkate kon ñooñu nit ay la ñoo xam ni. fenn fu ci nekk ñoom suñu borom da leen di taw bi ci aduna bi fenn fu ñu nekk fu ñu gis lu ndam da la war fa def leer ñu def ko fa waye nak da no yene won ñepp jam donte sax nit ñi dañ ne yéene ay da go gis ci jamono ji nga toll nga xamni euh bu fekke yaangi ngi li ëpp ci walu dingat ci jamono ji ñu toll ci suñu walu li ñu xam ci aduna ki ñuy gëna mëna mën sonal wala tay ji bu ñu bëggee sës ci mom dañuy songu bàyyi faal bëgg def sa caay-caay sax da ngay ak moom ni man ab Baay Faal la waaye sëriñ moo daaminte yàlla yàlla yokk leen nee na Baay Faal pire bu ne la jàkk te soppuñu la rek yaa ngi ci luñ seexlu ku nekk nag boo toogee wéetal sa bopp xalaat bu baax a baax di nga xam bu baax am yow loolu fan la toll fan la toll ci yow kon Baay fal pire dafay sell set wecc ba noppi nag doon koo xam ni day nekk nit ku am personnalité ci boppam ba noppi nag doon ko am njariñ waaye koo xam ne yow amuloo kenn njariñ foo nekk intérêt personnel moo la fa bàyyi loolu du ak dund te yonent bi sallallahu alayhi wa tere loolu Sëñ Tuubaa moo taxoon mu naan nanuy jéem a fexe di góor góorgóorlu ci suñuy loxo di liggéey nee na yeddul ulyaa xayrun min yeddu suflaa loolu yonent bi waxoon na ko bu yàgg ndekete ndekete nit ki takk liggéeyam dem liggéey ñaqal boppam daal di faj soxlaam te kenn du ko xamal dara léelu moo gën junni yoon ki nga xam ni fu mu toll di ñaan boo dee ñaan wala ngay laaj bu yàggee da ngay soof nit ñi te loolu ci jamono ji nga xam ne daanaka fi mu toll nii ku la defal benn mbir tey jii boo ko taggul am na ñoo xam ne ñoom si seen i jëf bëgguñu jëf yu nëbbu bu fekkee ne da nga leen di ñaan ci barab ñëw ñu leen man dama sëñ bi kat damaa yittewoon di euro mun laa fekkoo ko fi de waaye boo ko fekkee ci mbooloo wax ko ko ne ko damaa soxla cinquante euro mën na laa jox cent euro yooyu dafay bokk ci ay nit yoo xam si ngistal moo tax waaw da nga koy faral faral gis ci àdduna bi nga xam ni yenn saa nga woo ñu ki sax mu naan la waa man de démb damaa yéex a dama doon dama doon naafi la waaw dama doon jàng nanga mi xasida kooku moom yow la concerné yow bi sa bopp yow mi xam ñaa ngi ko jëf pour nga bañ a weddi sa bopp ci li ngay def comme li ma doon wax sànq bari waa ne koo xam ne yaa ngi ko am ñoo xam ne mën nañoo dund ci biir leer boobu ba tey defe ni sax la ni laax dem fekk fu ñu toog sax jógunu fi na ci jàng xasida mën ngaa jàng xasida ba defe ni yow yow yaa daal di kawe ñëpp bari na fi li xew nga xam ni maanaam ñi nga war a jox cër yow doo leen jox cër ñi nga war a respecté loolu la respecté te sëriñ Sëriñ Tuubaa yi ak ñi nga xam ni ñoom ñoo àndoon ak Serigne Touba seeni ñoo ñe ba yow mal qiyaam ci tedd nga la ñuy nekk ndax Serigne Touba moom du defar lu yàqu te du ngem bu mbër muy te képp koo gis mu samp ko moom Serigne Touba kookee xamal ni la mu liggéeyal sëriñ ba sëriñ bi samp ko amul ku ko mbindeef mu ko seeg ndax sëriñ Moussa ga wax na ko Serigne Touba mënee su ko daan ngir ma ngay takkay ndombaam fa pays tiwaat kon mun duggee ci liggéeyam nag moom Serigne Touba muy xasayida yi nga xam ni tey jii moom la ñu jëm jël ko tudd ko muy na xasida yi muy ay barab yu ñuy ànd xam ngeen ni xasida bokkoon na ci yi nga xam ni moom da koo bind muy ay ay matte euh, xasida nag dafa bari ay ay ay ay ay ay place bari ay <clears throat> barab yoo xam ni da ko faa defe xam ngeen ni am na lu mu bind loo xam ni euh, da koo bind ci xam-xam muy téere xam-xam yi tasawudu subaan tasawudu sixaar jës badu sixaar mulayyin sudur nawju qada al haj masalikul jinan ak yenen yo xamni da ko bind muy ay xam-xam yo xamni ni dafa bëgg ñu jang ko pour xam ko tax da ngay faral li gis il faut murit ñi lu ci jang bu baaxa baax pour ñu mëna dañ ci euh tay jii bu fekke ni dañ lay bëgg laaj ci sëriñ bi dara am na ñu bari ñoo xamni si man nga leen gis ñuy wax wax seen eh, mbubb waaye boo moytuwul bo doon joxoon ngeen xasida kalamul sax mën na koo loolu nag sëñ bi lu kéemaane la bëgg sëriñ bi lool lool lool waaye nag wóolu bi mooy des soo ko wóoloo da nga war a fexe gëstu ci moom ba xam ko ndax fi toll nii jour yi nga xam ne ñoo fi nekk ak ñi ci àdduna yi tey jii am na ci xale yu bari yoo xam ne si ak ay mag yoo xam tey jii Balotelli mën nañ laa wax ne équipe ba muy joué wax la la muy fayeeku ak yeneen i jour xam nañ ko baax xam ñaata at lan am xam ni seen carrière kañ lay yàqu waaye boo leen tuddaloon benn saxaaba wala benn seex seexi sëñ Tuubaa nga laaj ko ndax xam nga ko nan la kooku kan la kañ la faatu wala kañ la fi jóge ñaata at la ando seen bi yoyu la ñu war jël suñu doom ak suñu njabot ñu leen ci tektal di leen ko jangal waye yow li olof di wax rek naan dem kër yalla ba noppi di yow sa doom kër iblis moy la yow bu fajaree nga julli do yee sa doom do yore sa sox yee sa soxna boo tàkkusaan jotee nga julli do leen soñ ci dara ta bu jàng jotee nga lañu leen jug leen jàng ah mais seen bi pour xolaté tuuti tamit amna yo xamni ño ni dem ba nga xamni ño yakal suñu bop wala ñun ño dem ba xamante bu ñu suñu tank kon diine dafa doon loo xam ni ni nga koy jàngale sa bopp say cër di ko tàmm say doom bu koy gis te xam li ngay def war ngaa nekk ak moom muy xam loolu nga xam ni mu xam fen baaxul nga xam ne yow doo ko fen boo ko diggee da nga ko koy jox soo nekk boo màkkalee nangam dinaa la jox nangam loolee bu ko amee nga yëkkati jox ko ba mu xam ne wax dëgg nii la waroo saaga ci kanamam yéen ñaar ñi nga xam yéenay way dencante wala ne nekk di xeex wala ngeen di xuloo kon day jàpp ne moom bu amee soxna war naa mën a xuloo borom këram yooyu yëpp bi euh, dafay xew ci àdduna nga xam ni kër yi dafa xat ak nekkin yi ak yooyu waaye yooyu pour nga am doom joo yar mu yaru ci diine ba ni ko bëggee am ko li ci ëpp day dem ba mu jàgg tubaab bi moo koy faf nangu bari waa na ay sëy yoo xam ni ñu ngi ko takke senegal waaye fii la yàqoo bari na ay diggante yoo xam ni am na waaye tey jii fi ñu toll ni yàqoo na fii ci réew bari na te loolu léegi di ko waral bari na ay biir kër yoo xam ni ñoo bokk ndey baay waaye fi ñu toll nii dootu dunati dara wala ko lu dul alalu àdduna ak lépp loo xam ne si maanaam dafa jëm ci poñat te yooyu yëpp koy bàyyi kon loolu liñ li ko waral moom mooy base bi ci boppam moom mooy yàqu xam ni amatuñ ko dëgg nag ki dimbali mooy kenn muy sëñ Tuubaa te dama koy faral di wax liggéey yi fi desoon yëpp ak yoonu jëmoon ci yàlla nga xam ne dafa gën a gaaw ginnaaw baatu laa ilaha illallah yëpp xasida yi sëriñ Tuubaa yii la te xasida Sëriñ Tuubaa yi nag weesuwul nga nekk murit di ko sellal ba noppi bokk ni koy jàng boo ko day yalu comme ni ma ko waxee léegi kon yooyu mooy yi nga xam ne ko bind muy xam-xam kon murit da koo jàng am na yoo xam ni dañ koo tuddee albasit mooy bind yu gàtt yi lu mel ni xamdan li munzirin wa danaa wa taay mat la bu sifaay euh, sindi di yàllaahu yàllaahu ibnu sifa sindi di yàllaahu ñaari sindi di am na Sëriñ Tuubaa bind na boo xam ni laata muy ci géej gi yàllaahu ibnu Mustafa sindi di yàllaahu بوكتك يالله بالمصطفى آه، محبوب يالله بوبو من كل بين الله كوي دم تيجي وبمخ وبخليلك إبراهيم يالله بوبو موي بسندي دبي بيو هم دكوا بين اللون ما مسونا جارا بيو أمي 14 سنة آه. يكوكو كرمور عند سالي موي بيو هم ني موب نجيب تبين يهون كوكو نيكو سو كجانغة سي سلا تو على نبي بيو هم ني يهون تبي موكو يهون فاطمة تبين رسول الله موكو يدف موملا سونا مام أستوى على مبكي يهون مام سونا جارا موكو يدف te salaatu ala nabi boobu bu ko dee def temps bi muy jël mu bëgg bale kër gi bëgg a segg café bëgg a defar ndékki suñ moral desali bëgg def moom yu bàqiyaat saalihaat yëpp sëriñ bi bital ko ni ko soo ko jàngatee am nga yoolu li ngay war a def lépp kon ci la xam ni moom moom mooy jur jàmbaar te it mooy jur ki nga xam ni fas yéene naa leeral adduna bi ba noppi teg nit ñi ci njub euh, am yoo xam ni ñu ngi koy tudde ay përu muy lu mel ni mawaahibu naafi' muxaddamaatul amdaax yooyu ay xasida la yoo xam ne yu mag la ay mu def ci ay amdaax yoo xam dañoo tàgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañ lay wax ni la jësbul xulub bu fekkoon ni tey jii da ngay woo ab dessinateur bu mën a dessiner nga koy wax muy dëgg mën na defar jëmmi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te na mu meloon nga xam ni moom la ko Sëriñ Tuubaa jàngale am ci yeneen yoo xam ni yu mag yi la nga xam ni lu mel ni mafatihul bisri wal amna wal janna boobu xasida la goo xam ni dafa maasee cheikh mouhamadal fadal Mbacké wax na ni bi muy gën a jamono ñu koy wax dafa toll ci yaa fadilan fadalahul xalaaqu yaa man bii faaxiriñ imlaaqu lu siiw la nga jël taysirul asir muy xasida goo xam ni sëriñ bi da cee wax lu bari yombal lu jafe mu tëgg ko inna ma al usri yusra waaw gis ngeen xasida googu muy alam nashrah nga jël nuuru daale ni muy nga xam ni mooy leer ci ñaari kër yi bokk na ci yooyu jaale bi tul muraqib ak yeneen ay muqaddimatul izziya ak muqaddimatul xasida yu mag yi ak muqaddimatul kubra yooyu yëpp nga xam ni da koo liggéey waaye tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la ci def waaye dafa bëgg nag ñu koy gëstu ñuy gëstu xasida yi di ko gëstu di ko di ko jàng njàng ngeen wu sell woo xam ni da nga daan digal mag ñi wax la nit ñi ci njaaree moom sëriñ bi mag bi euh, daana wax mag ñi ki ngay jàng di ko yàllu na am pasteef lool waaye na sell te jublu penku dana fexé ba lap waye kiko koy jàng di ko yëkkati ginnaaw bu yoyu amé ci mom ba nopi na baat ba neex su baat bi neexul na ngeen ko gatch gatchal wala bu ngeen koy bëgg def te mo am yéene ba nopi am pasteef te baat ba neexul yónni leen ko fu sori bala mo ñew ngeen paré gis nga kon amna estrage bu mu defon bo xamni ni politique la bo xamni dawul yokkat yokkatloo ki nga xamni dafa dafa mën ba nopi am pasteef yeen say nga dégg ko xamni mu yëkkati xassida am na pasteef mais baat bi neexul serigne bi bëggul won lolu ndax xasida yi dafa wax ni bu fekkee ni ñu ngi koy jàng tey jii bu daganoo sëñ Massamba Mbacke la ko wax ni ko bu daganoo damay ubbi gémmiñi ñi nga xam ne ñoo koy jàng dañu sotti sikki ngir fonk yonente bi sallallahu alayhi wa sallam xam ngeen ni xasida googu ñuy wax mi daal di wa aqlaami wax nañ ni mas nañ koy yëkkati ci jolof naan tawaytu tariqa alqawmi waqta ibtidaa'ihi wa lii qad xada alxaajaatu bi rawdi wal basti wax nañ ni keroog sëriñ Tuubaa dafa ni bëri jublu penku di dem naan xaw ma ku wax loolu waaye raw na ma wax ñu ne sëñ Massamba ak yenn mag ñi topp ko naan ko Mbàkke yow a yow yow Mbàkke yow Mbàkke loolu mooy taxañ naa yooni jëm suñ borom te jamono jooju mi koy taxañ nag boobu boobu góor yàlla yëpp taxaw nan waaye ndekete suñ ndey soxna jaara ndawal na ma ñukki ñukki góor yàlla yooyu ba jëlal ma ndam li ba noppi téyel ma drapeau bi ni ma am yaa ko moom kon loolee lay wax foofu bu xañ da goo xam ne wax nan ni ku ko mokkal sax ràmm nga sa ñaari waajur ndax am na koo xam ni ci njaareem daa faatu woon ñu indi ko di ko waajal wax ko sëriñ bu mag bi sëriñ bi daal di wax maam Cerno nañ ko daal di wax maam Cheikh Anta Mbacke mu waajal mburu yi muy ko war defal nga ne sëriñ Tuubaa tey jii bu fekkoon ni dafa yor état wala mu nekk état tey tey jii mën ngaa génne ci moom kenn ku ci nekk la nga xam ni moom nga yoroon tey jii boo dee xool lu jëmoon ci wàllu finance maam Cheikh Anta Mbacke moo ko yoroon soo ñëwee ci Seydina Ousmane Karamullah Abubakar Siddiq noonu la meloon jamono Yonent bi sallallahu alayhi boo ñëwee ci wàllu défense nga xam ni moom mooy yor sécurité yi ba noppi nag moo ki nga xam ne si nit dañ koo bàyyi woon xel Seydina Omar muy maam Cheikh Ibrahima Fall nga xam ni li mu doon wax rek sëñ Tuubaa ab dëkk la waaye man Ibrahima Fall maa yoon wu ci jëm nga xam ne kon ab dëkk mënoo cee tàbbi te jaaroo ci yoon néeg mënoo cee dugg la dugg ko ci buntu kon yooyu yëpp li mu doon jàngale moom mooy ñu ay jëmmal la yoo xam ne si noonu la doon wax wax nañ ni bii sëriñ bu mag bi bindee Nahjul Qadaa wal Haaja ba noppi maam Cheikh Ibrahima Fall dafa ni ci nee na sëñ Tuubaa ni ko Ibrahima Fall yaa ngi nii waaye yaa ngi dee waaw ba ma xoolee téere bi daf ni ci sëñ Bamba mooy kenn de day fekk ko yàlla tëdd mu tànk ci dënnam sotti ko di ko jox jaam bi te du la du la tàggu boo jàngee nooy jur xadaali xaaj yi Cheikh Ibrahima rek ngay gis murit warul tàllal tànkam ci kanamu sëriñam waroo toog di wokkatu wala ngay làmb sa boos mel ni kuy génn te génn woo dara te kuy nuyu sëriñ danga koy siyaaree dara waaye nuyu ay loxoy kese rek loolu day wàññi barke te loolu yëpp nekk ne alxuraan waxoon na ko bu yàgg waxoon yonent bi sallallahu alayhi wasallam yéen ñi nga xam da ngeen di ñëw ci moom bu ngeen di déyee leeg moom na ngeen di yónnaa yóbbaale dara di ko jox teg ko ci loxoom nga xam ni yooyu yëpp yi mu njëkk a def ci kanamu sëñ Tuubaa yoo xam ni kenn mosu ko woon a xalaat sëriñ bi mag ci mbàkkee ci mbàkke bopp ci bopp ci mbàkko daana jëm ci jàkka ji Cheikh Ibrahima Fall topp ci ginnaawam yëkkati baatu sikkiru laa kenn mosul gis ko mas a def di si kartof ci ginnaaw di dem loolu muy lu yéeme daana dem ba nga xam ni daawul nangu kenn dox digganteem ak sëñ bi ci kanam yooyu yëpp kon ka nga xamoon dëgg-dëgg yàlla da ko wonoon ci bëti lëndëm leer yoo xam ni kii mooy kan kii moo nar a xettali jaam kii moo nar a defar kii mooy ki nga xam ne moo leen nar a jàllale kii moo fi nar dindi ak caay-caay kii moo fi nar a dindi maanaam feeñal naafiq yi comme ni mu ko waxee woon maak sëñ Bamba génn naafiq yi ci islaam moo tax a ñëw ñi mu andalon ak ni mu melon non la mel legui nak bu fekkene da nga gëstu yoyu moy xasida yoyu nga xamni ni benn bu ci nek ñu jël benn lu mel ni jawartu nga xamni ne la go xamni euh dafa yéme ndax sëñ bi dafa ni ma ngi dekkale ak yàlla dekkale ak yàlla sëñ bi xam ngeen ni lu yób du jafe la yombul xam ngeen ni yàlla yonent bi alayhi wasallam dafa ma a am ku ñëw mom ni ko dama la bëgg lool mënu ko sentul ay cioro ak ay jafe-jafe kenn ki ni ko man yàlla rek la bëgg mënu ko ay nattu rek nattu ngay séddu yow waaye yow léegi nag soo boolee ñaar yi kon sa àdduna mën naa neex moo taxoon sëriñ bi euh, li mu nekkoon ci jamono yëpp dëkk yi mu gënoon a bëgg muy Touba wax na ni ba fay jaar di jëm Jolof suñu da koy wax ni ko boo xoolee dëkk bi di nga ko xemmeeme la ngay wut doo ko jot wax na dafa muuru jàll jëm Mbakke bari ngir mën a dem suñu borom yàkkamti yoon bi nga xam moom lay yanu ngir mu xam ni ndam lay jëli xam nga loolu dafa yéeme di xeex te xam ni yaay gañe loolu euh, bariwaay na fi ñu toll nii euh, li xew Sénégal nga xam tey ji làmb ji coow li ni muy baree nga xam tey ji fi ñu toll nii dañuy jékki-jékki rek am ku ni wala fa li daal di jóge di diw mooy mooy daal bu ko defee nag yëpp daal xew li yëpp daal xew waaye moom bi muy dem ci géej gi suñu borom xamaloon na ko ni ko boo demee yaay jël ndam li te soo ñëwee nii lay mel suñu borom tàmbali ko misaal nag yoonu géej gi yëpp bi mu jugee Mbàkke Baari di génn foofu mu xamal ko ni ko da ngay am ndam xamal ko ni ko li ngay dem tey jii mënoon naa jël sëñ booba bi muy dem ci géej gi magam mi ngi fi woon sëñ Mor Jaara waaye xam nga tey jii bu fekkoon dafa jël lépp jox ko sëñ Mor Jaara dana naa ah, waa moom kat moom baa dafa jël mbir mi rek ànd ci néegu rek boole ñoom waaye dafa jël maam Cerno Ibra Faati daal ni ko njaboot gaa ngoog dénku lépp daal di dem ñu xam ne ko ah kon moom mi ngi yaatal mbir mi moo tax mbirum bi mbirum Sëriñ Tuubaa kenn du ko xatal day yaatu waaye nag ci jamono ji ñu toll nga xam ni fi ñu toll nii kenn ku nekk ngay wax fi ñu toll nii ñaata seex ngay dégg ci àdduna ay seex yoo xam ne doo xam fu la jóge kenn ku nekk naan diw moo a seexal diw moo ma seexal gis nga la amoon ba jikk nga xam ne du fi mas a dañ du mas a dañ mukk mukk mukk muy doon taalibi ba faw moo fi jariñ képp koo xam ni yëg nga sa bopp ba am lenn loo yëg ba defee di yow dara nga boobee yow yaa ngi tàbbal sa bopp ci kàmb koo xam ne xamoo fu mu dëkk te yooyee nag amul woon ci bu jëkk ci mag ñi mag ñi danoo nekkoon ay nit yoo xam ne danoo wóolante àndandoo nekk benn ba noppi kenn ku ci nekk li nga yéene sa morom nga yéene ko sa bopp waaye fi ñu toll nii danoo dem ba nga xam ne àdduna bari waa na sëriñ barab yoo xam ne fi ñu nii coow li dafa bari lool bari lool kenn ku nekk naan man la te fekk sëriñ bi rek la Cheikh Issa Dienne mas xool sëñ Touba mu jàgg mu ko cay Mbàkke li ma la yéene woon day amoon àdduna ak li ci lépp jox la ko Mbàkke mun ko am ah, ci loolu mun ko la ko mun ko jërëjëf Cheikh Issa mun ko Issa mun ko Mbàkke mun ko loolu am na solo lool waaye am solo ñu xam ne lépp mën a te lu yëngu ko loolu nag la muy firndeel moom mooy ah bu fekkee ne nag nit bu lekkee alal ni ko olof di waxee dafa dafa gërëm coy waaye bu fekkee danoo jariñu ci moom war na noo fexe ba xam bu baax a baax ki nga xam ne moo nu may ñu jariñ ci moom waaye lam nu may ñu jariñ ci moom ba noppi buñ ko mayul woon duñ mën a jariñ ci moom kon xasida yi da cee bokk li nga xam ni euh, gànnaayam la waaye nee na euh, dama leen koo jox pour mu nekk seen défense waaye dee leen ci gindiku kon ngeen jàng xam-xam pour ngeen mën a dañ ci réer waaye nag xam ngeen ni dem nañ ba nga xam ni toll nañ ci àdduna yenn saa yi nga gis ñoo xam ni ñoom nee nañ xasida yi leen yaakaar moom nañ lañ gëm waaye la ndax tey sëñ Tuubaa moo bindoon ci téere yi Masaalikul Jinaan wax ni sëriñ bi nga xam ne doyu la nga natt ay mbiram doyu la nga xool ba nga xam ne ci doyul mi ngi mel soxna sooy takk amul kenn koo xam ne da ngay xool soxna su ñaaw soo xam ne neexul a xool ko koy takk déedéet boo def sa xaalis da xool ko jonga boo xam ne si maanaam toor fa a nga doo jël sa xaalis def si takk sa kër bu ko defee boo ko xoolee bànneexu waaye doo fekk sëñ bi nag koo xam ne dafa mel ni bukki wax dëgg yàlla neexul xool euh, boo ko xoolee da ngay umul da koy jël di ko indi sa kër da ngay lànk ñëpp ci yàpp yam nag amul kenn muy sëriñ baag ñëpp kenn ku ci nekk doo jël maanaam koo xam ne maanaam ku ko xool daw wala ñu naan kii kan la doo xam fu mu bàyyi ko nga koy dugal sa kër déedéet da ngay dem tànn xale bu jëkk bu bu xees bu baax a baax nga def ci sa xaalis indi ko ci sa kër noonee la mbir yi mel nga xam ne na nga koy tànne sa sëriñ bi nga xam ne ngay sukk jébbalu ci moom nga xam ne na nga koy jox sa bopp doyloo ko ci lépp nag nga xam ni dangay nekk ci biiram ak ci biteem waaye bu fekkee nag yaa nga bëgg a comme xew léegi nga xam ni fi mu toll nii euh, génération yi xew sëriñ bu siiwul kenn du jébbalu si yow sëriñ bu amul mbooloo kenn du jébbalu ci yow sëriñ boo xam ne si mënoo wax wala dëgëroo fit wala lu waxoo ay toj toj ñu ni sëriñ ba jàmbaar la wala def na nangam ak nangam te boo ci dee xool li ci ëpp seen xam-xam wala ji li jàng dafay daal di yéeme nga xam ni da ci dem ba xam si fi nii li olof yi wax rek bari na ñoo xam si fi ñu toll nii bayre ba ma noppi nag na ko sëñ Tuubaa ci njaareem amoon na ci seex yi faatu ñu ko ba noppi taaw ba daal di jug ànd mbooloo mi ñu ñëw ci sëñ Tuubaa ñu dañuy yeesal seen njëppal bi coow li baree bi ñu ñëwee suñ wax ba noppi sëñ bi ñu tekk daat ni leen bàyyi leen seen caaxaan yi te ngeen dem jaamu yàlla man foofu ma waaye nag am na ñoo xam ne bu nattee seen bopp xool xam ni li nekk mooy àndul ak ngërëmal seen Touba. ngërëmal Serigne Touba daal mooy déggal ñi nga xam ni ñoom la jox baat te xam nga baat du ñaar du ñett benn lay doon ña koy yor nag duñ daal di kii euh, am ñoo xam ni danañ jël ci phénomène yi xew léegi naan diw jaalibatul muraaxib diw ma faa jaxil bisri diw masaalikul jinaan diw nuurul daarayni diw nangam yooyu yëpp lu baax la lu am solo parce que xasida nit ki mën na koo bëgg ndax kenn ku nekk sëñ bi dafa ni xoolal fas woo ci jël muy sa fasu bopp boo xam waxtu wu jot di nga yéeg ci kawam yéeg bi mooy lan di nga ko durus jàng bu fekkee mënoo ko nga jënd ko di jox ñu koy mën bu fekkee ni yàlla dogalul nga mën loolu boo ko amee tegal sa kër di ko parfum ba noppi di ko toppatoo waaye fi mu toll nii boo dee fu mel Sénégal journalu PMI journal ci boppam moo gën a jar kaamil alxuraan léegi kaamil daanu na fi ni toll nii 650 boo ko amee am kaamil am na sax yu jar nay 350 mooy xafs bi mooy bu weex bi am bind mu ñuul bi loolu lay jar waaye warsu bi nga xam si moo am mbind mu ñuul mi am këyit bu xonq bi foofu dañ ko jaay sax ay 5000 waaye journal bi li ci tel kenn du xam nu toll ñi koy yër bis bu nekk ay borom xam-xam lañ ay nit danoo wax ni kenn tey kenn mënu leen gën ci biir tey jii boo boo leen bàyyee ay julit lañ boo leen reyee rey naa fekk te it li ci ëpp ay nit lañ yoo xam dañ leen yaakaar kon nit buñ la yaakaaree wax na ni am na seex muslim sëñ Tuubaa ne ko Mbàkke jërëjëf man de tey damaa kontaan Mbàkke day maanaam tool yi ma doon xëccoo day yàlla dogal na nangu naa ko ci diw mu ne ko mbaa jëlaale nga asamaan si ñoo bokk borom de ñoo bokk borom nga xam ne am na ñoo xam ne àdduna moo leen tax a jóg loolu nag sëñ Moussa Ka waxoon na ko sëñ Tuubaa nee na ne ci man ak ne fi man bokk na ay pay yéeni murid yii fi zaman ku ne ci moom ma ne ci moom ta yor ko adduna ak alaaxira far defar ko ràmm ko sàmm ko ba xëy jëfal ko jox ko njool màkka mu xëy dëkkoo ko ku ne ci man ngir koy mi ak saay si mu jox la yooyu sama bàjjil del si xasidaa ngi noonu nga xam ni jaawartullaaha la wax bi kitaabihi ilaa duxul janna maa ngi dëkkaa léegi yàlla mi nga xam ni euh, ak téeréem bii di alquranul karim di wax yàlla di 114 saar téeméeri saar ak fukki saar ak ñeenti saar wala téeméeri saar ak fukki saar ak ñetti saar ndax am na ixtilaaf ci borom xam-xam yi ci suñu wax foofu waaye nee na maa ngi dëkkaaleeg moom waaye gis nga la cay yéeme ba ca biir ba mu demee ba ci biir xasida gi moom sëñ Tuubaa dafa wax ni mbootum alquran suñu borom roccil na ma jox ma mbóot ma ni ma téyegal ko sa bopp ndax dafa xamoon ni dana dem ba jamono joo xam ni dana am ñu koy gannaaw ci alquran ngir jële ko fi gis nga bi mu nekkee ci géej gi am na mbooloo moo xam ni danoo dajaloo woon di jàng alxuraan di rey ay nag di ko tàbbal ci géej gi naan yàlla bu mu delsi ci barke alxuraan ndekete boobu sunu borom noccil na ko mbóotum alxuraan jox ko nee na nufi ali lislaamu inda xurbati la dal jazairu mu ngi turbati sunu borom roccil na ma mbóotum islaam muy alxuraanul karim jox ma ko ci diggu géej ga ni ma téye ko rocci mbóotum laa ilaha illa allah ci biir géej gi man Seexul Xadiim ni ma téye ko waaye bi mu ndoccee mbootum laa ilaha illa allah jox ma ko ci diggu géej gi bi ma ëlbati ko damaa yem ci maam Cheikh Ibrahima Fall ma xalaat ko ko muy géej goo xam ni moom la yor di ko doxee waaye mbootum sikkiru laa ilaha illa allah muy alquran gi nga xam ni moom mooy baatin bi di koo téyel boppam wax ngeen ni te jamono jooju am na ñoo xam ne dañ doon ñaan yàlla na des si géej gi ci bari alquran sëriñ bi bi mu ñu bisee am na ku ñëw koo xam ni ku gore la di ko mbàkke damaa bokkoon ci kuréel bi nga xam ni dañuy ñaan yàlla nga des ci géej ci barke alxuraan mu ne ko da ngaa goy rek yaag say moroom mu ne ko doon ko doon defee mu ne ko dañ daan jàng ay kaamil yu bari wut ay gàtt wala ay nag yu ñuul di ko rendi di ko yoole géej xam ngeen ni loolu lu lu lu yàgg la ci islaam wala lu yàgg la ci ceddo euh, di jël ay xërëm xam ngeen ni yonent bi saa sallam amoon na benn badawi bu ko ñëw benn kaw kaw bu mas a ñëw fekk di ko muy séddale màng gi mun ko yow mi nga xam si yaa ibnu Tabihayn yow mi nga xam yaay doomu ñaar ñun waroon a ren di Ismaïl ak Abdal Mutalib mooy Abdallah nga xam ne tey jii dafa waxoon ni moom fukki doom su ko amee fukkeelu da koy jël rendi ko di koy jël kon fekkoon ni danoo rey bàyyam Abdallah moomu Muhammad du am kon loolu dafa yàgg ci ceddoon nga xam ne ñoom loolu dañ doon doxe gis ngeen ni Égypte seen ndex googu da doon dem di lekk ay xale bu ñu demee at mu nekk dañuy jël xale bu jigéen loolu yonent bi sallallahu alayhi wasallam fekke na ko nga xam ni tamit defu ci benn revendication wala waxu ci wala kon daal yàlla moo ko wax la wul woon waaye Seydina Ababacar bi mu toogee kazaalika na ko noonu dañuy jël xale bu xamul dara ñu takk ay bëtam saañ gémmiñam dugal ko ci saaku tàmbal ko ci ndox lu ko mooy mu lekk dëkk bi bi Seydina Omar toogee loolu di jub si euh, nga xam ne kon sëñ Tuubaa moo xam yonent bi moo ko donn loolu laay bëgg leeral pour ñu mën cee xam lu bare bare loolu bi nga xam ne si loolu am na ñu wax Seydina Omar ni ko ñu kat sunu dex gi dañ daan def at mu nek dañuy jël xalé bu jigen bu xamul dara euh, tak ay bëtam baye ba guddi ñu yar koy yole dex gi ndax lu ko may doy lek dëkk bi mun leen lool dak na bis ni ko tey say naa war ma wax lool ñu ko tak waaw waaw mu ne bu ngeen demé ba tollu ci na ngeen ñew wax mako ko daal di bind ben lettre ni ko géej yow ak jam nga wala dex yi léegi loolu ñu la doon defal man Omar ma la wax ni la bis ni ka tay na nga and ak dal kën dootu la ko defal te bis bo deful lima la wax na daal ci sa kaw xolal ci mën wax ndox سنتبا داري وقت جرائية داري وقت ومن كراماته بعث الكتاب إلى نيل توقفت سم الماء مدراره سنتبا نينا بقنا جي كرامة سيدنا عمر مجل من من يخ لين كو نين تابال لين كو جي نخما ني تابال كو جي بوبا اك ليغي تيخ يا داني تيك داوتو بو ديمي ايجيبت دا كو غيس لولو بقنا جي كرامة ييغا خامني سونو بروم نخون نكو سيدنا عمر موي جو خامني لولو لا loolu la wax ni kon dëkkaale gi mu dëkkaale yàlla ci alxuraan loolu sëñ Tuubaa nee kon bi muy dem ci géej gi baatin boobu la ko suñu borom joxoon ko loolu sëñ Tuubaa def ni ko ah da rek waaye say morom yéene ko nekkoon wax ko ko doon defee kooku ah, ak soola doopo doopo doopo sal sama joore kiren soola loolu nag nga xam ni kon noonu la ko daal di dikkee ah, mu ni ko ndax xàmmee nga sa mbindum loxo la ni jëm jooju jamono jooju ku sa bàyyi faatu waaw yaa da bari non sax ko bari de yaa koy bindal yaasin wal quraan boo bindee yaasin wala quraan waaw euh, ngaa koy muure sa bàyyi ñu daal koo denc waaw loolu bu ko defee boo jëlee yaasin bind ko sa mbindum loxo te doo ko xool muure ko sa waajur jëmm jooju bi waajuram fàttee fekk dafa waxul sëñ Tuubaa ni ko dama fay ba ma bëggoon mu fi bàyyi koo nga teew nga nga nga nga bokk dañu may taxawu ndax yaakaar naa la lool boobu sëñ Tuubaa demul ci géej gi seex yu bëri bi leen sëñ Tuubaa seexal demul ci géej gi seex yu mag yu bari yoo xam ne da leen seexal laata muy dem ci géej gi samp maam Cheikh Anta jox ko junniy mbooloo téeméeri nit ak dëkk ba Daaru Salaam daal di ñëw jàll Mbàkke eh, daara alimul xabir ñëw daaru Quddus dem Ndaam daal di sanc dëkk yooyu daal di jàll tàmbalee yéeg ci kaw kooku kon xam nga ni li muy def mën na ko baax wax nañ ni bi nga xam ne loolu am na moom mbind mbindum loxoom noonu mu ne ko bàyyam te fekk bàyyam amoon na wala sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa nee na bi muy bi maa nga ca diggante lambat naag maa yomba waaye teew naa ci rob bi nangu sama loxo jox ko Seydina Muhammad Rasulullah waaye ngir mu firnde mbooloo mi looloo dafa jël mbalaat ma moom sëriñ bi boole ko ci bagaasam ubbi genn gaal wax ko ni ko ndax xàmmee nga loxo mu xool muy mbindum loxo ko sama bàyyi ni mu fi faatoo mu ne ko sa bàyyi daa amoon ak man kóllëre te daan wax ni naa ko teew ci bisu bi nga xam ne fi lay bàyyi ko ma bokk ña koy taxawu keroog bi mu faatoo maa ngi ca diggante lamba ak maa yomba waaye damaa teew ci rob bi nangoo ko sama loxo bi jox ko Seydina Muhammadu Rasulullah kooku daal di yuuxu ca kaw sëñ Tuubaa ni ko jaawastu naasi bu maa fi ay di naasi ilaa rabbi naasi wala maa wasantu ilaa rabbi naasi aataaniya nafu naasi wa kafaaniya duru naasi weesu naa nit ñëpp maa ngi jëm ci yàlla nit ñi bi ma àggee ci ñoom nag mu jox ma njëriñu li ñëpp fegal ma seen loxo moo tax sëñ Tuubaa nee na kuy torox àdduna wala ngay tarax àllaaxira wala ngay am gàcce tëppoo ko lam yan xuni zaatu jaalibu niiraani aw jaalibul aarayni wala xusraan kon kooku ku ànd ak moom texe nga xasida nag moom sellal dong la laaj gis ngeen kuréel yii di xew moom moo amoon bu njëkk waaye yenn saa njàng mi euh, day nekk njàng moo xam ne njàngu mag ñi lay doon waaye njàng moo xam da ngay jël benn euh, benn benn bayit joko bambu baamtu di ko baamtu loolu bi la ko doon da wax comme kurus lay doon soo jëlee benn per boo bàyyee bàyyil beneen jàll fa nga ñaan ko jàng mu sell kon wax ñenn ni kon gis ngeen mu ne ko ma ngi doon jàng nga xam nañ ko la jàng soo tamit nga si da ngay di kon moom la sëriñ bi digle ci yi kon ñu gën koo fonkaat bu baax te xam suñu njëriñu tey ak suñu njëriñu ëllëg mi ngi ci njëriñu tey ak ñu ëllëg mi ngi ci digal bi nga xam ne si moo fi nekk sëñ Tuubaa te Cheikh Ibra Fall waxoon mag ñi rek ni leen bu ma fi nekkatul sëñ Bàmba nekkuma fi mu ni sama kër kafa mag ngeen àndandoo booloo liggéey jël ko yóbbul ko kafe mag ci kër sëñ Tuubaa ngeen jox ko ko topp ci ginnaaw déglu digal loolu moo am te loolu mooy wéy ba faw kon nanu daal di euh, jàpp suñu bopp bu baax a baax ndax bu fekkoon ni tey jii comme yi xew nii ci àdduna euh, jël benn cër bi jigéen moom la mu la mu baaxoo woon moom mooy am marché bu mag bu wàcc moom ndax xam ngeen ni islam ki fi njëkk a faatu su ma yëla tudd jigéen la waaye taxul tey jii yonente bi leen ko waxoon sama rendez-vous ak yéen àjjana la borom këram kazalika na ko noonu waaye gu ñaaw leen ko rey gis ngeen su mayee leen ko reyee dan ko pendre takk ay ñaari takk abu jëlin rey bu ñaaw la ko ñaaw la ko rey jël benn yàlla bu ndaw di ko weddil taggal sama yàlla wi te saaga rasulullah mu ne ko du ko def daal koy tëfli mu jam ko xeej ci dënnam mu faatu mu nekk shahid ñu jël doomam takk ko wax loo ko Muhammad lii ak lii gaza ba gaza noonu la ko ti téere yi nettalee moom dafa ñëw ci rasulullahi daal koy laxasu jooy ni ko baal ma àq ndax wax naa la lii ak lii mu ko loolu amul solo bu fekkee ne laa bëggoon jot sa bakkat moo tax nga wax ko kon nanu delloo si masiix dajjaal ñu ngi ci muy ay saytaane yoo xam ni dañuy ñëw ci àdduna di jaxase xel nit ñi nga xam ni si maanaam yenn saa ñu defaral la barab ba mu rafet sëñ Blaat am na ku mas ñëw ci moom ni ko Mbàkke de man damaa ngi tur woo xam ne guddi gu nekk daal man am na fas wu may jël si aw raxaan la yóbbu mu mérite mun a war a ma tawaaf dem ci kaaba gi def lu ma neex bu fa yaree mu delloo si ma sëñ Blaat di ko xool di xool mu jàgg mu aw mu am mu ko jox ni ko boo defee loolu ba noppi dolli ci lii ndax yow seytaane ngay gis wax na ni ba mu ko defee dolli ci li ko chef laa waxee ba mu xëyee sën ba ci ginnaaw këram la yeewoo daa biddundi sax wax na ni ñu doon rooti ñoo ko doon mu ne waa kii du sëñ diwa moom jógee fa sëmb xilam nga xam ni seytaane mën naa laxas ci lu bari yenn saa yi mu weddi looloo sa bopp te doo ko yëg yenn saa yi nga wax ba weddi sa bopp te doo ko yëg kon yàlla nu yàlla musal ci bew yooyu yëpp moo koy waral yàlla nu yàlla musal ci mbooloo moo xam ni dañ lay jay rek yàlla nu yàlla musal ci mbooloo moo xam ne dañoo ànd ak seytaane loolu yàlla nu ci yàlla musal sëñ Mourtada Mbàkke yàlla yàlla yokk leeram da ko daan wax mun yàlla nu yàlla musal ci mbooloo mu ànd ak seytaane mbooloo mu ànd ak seytaane dañuy xiirtal ki nga xam ne moo nekk ca boppa muy jayee ko rek xam ni day dem ba nga xam si day tàggal ñëpp ci kàmbu safara la yéen tuuti saa salaam waxoon na ko kon euh, nanu tënku ci xasida Sëriñ te kenn ku ci nekk ka nga yaakaar ngir jëmmi Serigne Touba nga jox ko sa bopp ni ko aslamtu nafsi ngay déglu ay ndigalam tey bàyyi ay tereem te nga xam ne ñoom ñooy sëkki Serigne Touba yi ñu jox leen cër bu mat sëkk delloo leen seen jukkal te bañ leen def ay morom loolu kat bi daana waxoon na ko mag waxoon na ni Cheikh Abdoulahi Mbacke borom dër bi euh, mas naa jógee ci daara ji nga xam ne si moom la sëñ Dama Abdourahmane nekkoon daal di ñëw njaareem sëñ Tuubaa jóge njaareem dem jamono jooju Ndakaaru amul euh, fii moo amoon dëkk bi ci wetu euh, Dakar boo wàccee Tëngéej mooy dëkku lébu bi foofu la nit ñi daan dem fa la Sëriñ Tuubaa doon yónnee ñu koy wutal pilip muy barñi ñi barñi barñi jamono jooju moo amoon Cheikh Abdoulahi dem benn taal bi Sëriñ Tuubaa toog fa bi sëñ daam ñëwee wax ko ñu ko euh, sa sama sama bi da laay seet mu ni kon nan dem xool ko kër sëñ Basiru néegu sëñ Basiru gisuñu ko mu ne nañ ko wër mu ni mag ñi seeti leen ko ba gis ko diñ ko fekkee foofu ni ko gaay wuyu ku baax ki bi mu ñëwee sëñ Tubaa sëñ Tubaa boole sëñ daam ba mu ñëw mu ni ko ndaam mu ni ko mbàkke mu ni ko ana nan ngeen bëgg a def su ngeen ma gisatu gisatu leen seen bopp nan ngeen bëgg a def sama doom ci seen doom yi mu ni ko xanaa mbàkke dañ leen di digal kon niñ doon def rek topp rek mu ne ko mbaam ndaam mu ne ko mbàkki mu ne ko neneen nu nga def loolu du ma ko taw ngoon nga xam ne kon ñoom kenn du leen mën a jiitu ko mukk bu ñu leen jiitalee nag topp seen ginnaaw di dégg seen ndigal danaan jariñu tey ak ëllëg kon loolu mooy li nga xam ne si moom la ñu bëggoon a soññ mbokk taalibe ñu ngi ñaan nag ci barke Serigne Touba lii nga xam ne ñoo ngi koy jug di ko defe yàlla nañ ci tasanteeg ngërëmal Serigne Touba képp koo xam ne yaa ngi fi am yéene dem te demoo li ngay sàkku yàlla na suñu borom may leen te am ci lu kawe si njort li ngay dàq yaa ko xam yàlla bu mu la jot bu mukk te yàlla na ko raw ba faw lii nekk suñu kanam nag mu bis Sëriñ Tuubaa di safar muy bis bu mu fonkal boppam yàlla na suñu boroom may ay xéewal liñ ci demee te buñ ci demee yàlla nañ ci liggéeyal sëriñ bi loo xam nga dana ak ak ngërëmam kon ñu ngi leen di sant di leen gërëm di ñaanal bokki Firenze yi ci taxawaay bu am solo bi nu am ak booloo gi nu ànd yàlla na Sëriñ Tuubaa gën leen boole yàlla na suñu borom gën leen taxaw ñi dëkk ko jibon si ñi dëkk fépp foo xamee ni si rek es ñoo ñooñu ñëpp nga xam ne dañoo àndandoo nekk benn doole kon ñu ngi leen di ñaanal ci barke xasida yi yàlla na ngeen am ndam ba faw di fajjale suñu këllël ak yéen bu baax di wëlbatikuwaat nag di gën a sàkku ñaan ci sunu sëriñ bi nga xam ni moom lañu amal ci jataay bi nga xam ni moom ba mu tàmbalee liggéey bi ba léegi ma ci biir guddi ak bëccëg suba ak ngoon kenn mënu ko ci waaye kenn du dégg baatam boo mujjul sax doo ko xàmmee muy soxna maam say Fall moom Serigne Assane Fall noonu rek la war a mën a mel Fall ndax am na foo xam ne soo fa bokkee ni nga war a mel noonu rek nga war a mel dangay jëf te doo ko boole wax loolu mooy jëfi Baye Fall jëf tël ñaq réerul borom loolu moom la maam Cheikh Ibrahima Fall waxee bi mu ñëwee jub baa Bari dafa dégg junjub yi naan ku fa njëkk gën ku fa xanaa foofu kenn nekku fi nee bi mu ñëwee ba jub si nag mu naan fu waay yem yaa fa mën a sa bopp mu ne xanaa kon loolu yàlla la kon loolu mooy jëf kon ñu ngi koy ñaanal suñu borom guddal fanam di seere bu baax it sëñ Moustapha Fall te it ñuy ñaan bu baax a baax ci daayira Firenze ak yeneen barab yi nga xam ne ci la ñuy dem ak yeneen barab yu mën ci doon ci àdduna ak ñi nga xam ne ñoom ñooy ànd ak ñoom lépp ci liggéey bii kenn ku ci nekk fi nga bëgg ak yàlla nga am ci lu kawe sa njort ci loolu ñu ngi leen di sant di leen gërëm di fekk ne suñu kóllëre ak yéen ndax wax dëgg yàlla li am solo ci àdduna moom mooy koo xam ne day jàpp te du bàyyi te loolu moo dal waa si danoo jàpp te bàyyi wunu ba nekk dëggal àndandoo nekk benn kenn ku ci nekk loo yéene sa bopp moom nga yéene sa moroom te loolu moom la sëñ Touba bëgg moom la Rasulullahi bëgg kii fi nekkal Serigne Touba di si Sidil Muxtaar loolu la bëgg xam ngeen nii ak kàddoom yàlla wuyu gi mu ko wuyu ak nangul ko nangul tey jii dem na ba nga xam ni julli ki benn la korite gi benn la loolee lépp ijaaba boo xam ne suñu borom may na ko ko te mu nekkal sëñ Tuubaa te di sëñ Tuubaa man ko sëkk moo ko waral te sëñ Tuubaa loolu rek la bëggoon kenn ku nekk nag ah xam nga ku man sa papa rek waaye wax dëgg yàlla doo ko nangu ndax fi ñu nii euh, sëriñ Tuubaa moom la yàlla jox jamono moo ko moom li des ci àdduna bëgg ko kenn moom sëñ Tuubaa Xaadimu Rasuul waaw dafa ne yàlla wuyu na ma jox ma dëkk juróom-ñaar fukki junni at أجابني الرحمن قبل الخلق سبعين سبعين ألف سنة بالحق loolu dafa leer nañ kon li des ci jamono mooy borom bokk kenn du ñàkk nag loolu di xew ak yeneen ak yeneen waaye ku nekk na nga jàpp sa gëm téye ko baax te bañ a foowee gëmu jàmbur boo ko defee rek jàmm day daal di ñooy waaye bu liggéey bu demee ba fa ñuy faye kenn ku nekk di nga xam sa busta baaga nu mu toll boo liggéeyul nag dëgg yàlla doo fayeeku waaye boo liggéeyee di nga fayeeku kon nanu góorgóorlu bu baax yàlla na sëriñ Tuubaa boole dimbali yàlla na suñu borom jàppale moom suñu borom taxawul bu baax a baax xasida allahu xayun samatun wa baaxi nag sëñ Tuubaa ni woon jamono ju tar boo ko dee jàng suñu borom dana la dimbali ci jafe-jafe jamono allahu xayun samatun wa baaxi subhanahu zu kanafin wa waaqi wa naxnu fi kan nafi lmanici min kulli charin wa jan chanici mustamsikina bi xiyaasi xamada xayra al anaami muntahan mubtada man xaalaha bi zamani la bàyyi amanahu allah min al balaay sëñ bi nee na ku koy jàng di xëy suba di gëm da nga dellu si ak jàmm ndax baax na sax ci gaa yi nga xam ni ñoom dañuy dàqanteeg takk der yi buñ jaaree gauche ñu jaar droite kon ñu ngi leen koy jox ñoom it mu doon seen seen seen seen sécurité waaw kon yàlla suñu borom jàppale bu baax a baax ñuy ñaanit bu baax a baax ñu ñaanal bu baax sëriñ Cheikh Jëmb Fall xalifa maam Cheikh Ibra Fall mu yàgg fi loolu tànd ak wér di ko ñaanal njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall gépp te it ñu góorgóorluwaat bu baax a baax tey bàyyi xel ni ko sëriñ Saliou Mbacke waxe woon nee na ki nga xam ne mi ngi fonk màggal ak ki ko fonkul bu ñu bëggee ay kër wala ñu teen kenn moom dana yëg lu ko moroomam bii rawe kon nan fonk bis bii nga xam ne mooy moo ñëw suñu kanam tan ci def lu nu mën ngir jëm sëriñ Tuubaa lu ñu ci def nag yàlla suñu borom fulal lu ko bam jëm ci kaw ñu ngi leen xam nga yéene moo am solo lool loolu la sëriñ Moussa Ka di wax naan euh, aw aw mboros boo wesul boo fasul lëñ nga mboros ma jagadi ñaw boo fasul wëñ nga mboros ma jagadi mooy maanaam ñaw daal maanaam boo fekkoon da ngay jël sa mbubb di ko ñaw mu xotteeku euh, fa nga xam si fa bopp wëñ ba nekk takkoo ko kon boo boo dominé puso bi mu dugg ci yére yi ba noppi day daal di yàqu kon yéene mooy loolu kon nanu rafetal yéene yi bu baax a baax te am yéene ju mat euh, Sëñ Tuubaa nag daana wax nii bu ngeen di seeti boroom xam-xam wala ngeen di dem ci nit ku dee leen yeesal seen jàpp ba noppi te ngeen ànd ak xol bu laal bu ngeen demee suñu borom mën leen ak yaatal seen mbir euh, kon ñu dugg ci laaj yi waaye balaa boobu signal li nga yéene léegi muy livre yi nii téere yi <coughs> moom laa doon wax ci sànq ci biir waxtaan wi war nañ koy fàggu bu ko defee ku nekk boo amee tout tànk mu koy xool xam histoire li nga xam ne moom mooy euh, maanaam li nga xam si moom mooy euh, dëkkam ak li nga xam ne moom la gëm ndax nit ku nekk li nga gëm war nga koo mën a gëstu bu baax a baax pour mën cee xam ba ca sax nga xam ne si yow mu am na lu la ëmp wala loo ko loo xam si laajoo ko ah moom boo ko wecc ko nga teewlu ko mën nga cee xam dara bu benn dund sax ci sëriñ bi loolu am na solo lool moom it am na solo ah, mbokk mi dafay laaj ci muwaay bu naafia ah. ah, muy xasida goo xam ni tudd nañ ko sànq ci waxtaan wi muy xasida goo xam ni cheikhul xatim Serigne Touba Xaadimu Rasuul nee na koo xam ni maanaam da ngay bëgg ay xéewal euh, di dotteeku ci kaw asamaan di la wut si euh, te mu ànd ak ay xéewal yu wér yoo xam ne du daal di dakk nee na nga koy saxoo ba noppi tey ànd ak njàpp ak yéene. Ah, euh, dafa am fu mu toll nag ci xasida bi woo xam ni. سرين تبا منك يوخني سلي وسلم على المتمم وكل ياسم بالانتهاء خمغ قصيدة كده في يمن دخ بودة ما بتشبير خمغ بيني بالانتهاء مواجه بي ويسلي وسلم على المكلم ودر ياسم وسن وعائي ولم تتك على الرسول باب الوصول لي لي سولي احمر وعاري أه، فينا دافا جيخال خسركي بوم أه، وخي صلي وسلم يوسف صلى الله عليه وسلم موني على المتلب جبريل تفتت ودوري عاصم وسن وعائي كون صلي وسلم بي سرين بو مك بي موي شيخ الخديم موكو وخ سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم على المتمم mu tontu ko ko moom Seydina Muhammad Rasulullahi tontu ko Cheikhul Khadim mi nga xam ni moom moo ko doon takk muy ci xasida gi ba kullu yaasim bi leen tihaay maanaam amul yem waaye ci li nga xam ne suñu borom dotti na ko ci ay may ndax boo gisee xasida gi ne mu tàmbalee bismil ilaahi yan muulu haayi bilaa manaaya wala intihaayi yow suñu borom maa ngi lay ñaan xéewal guy dotteeku boo xam ne maanaam buy ñëw ci man day ànd ak doole waaye doole jooju na ànd ak am xel moo xam ni bu ñëwee naa ko mën a jëriñoo xam nga tey jii bu fekkee da am un fas wala nga am mbaam wala lenn loo xam ne da ko war a tàggat ba ni nga ko bëggee mu demee noonu bu fekkee wulli woo ko bëgg ñëw rek jëriñoo ko ci saasi mën na laa gaañ loolu na suñ borom di wax foofu loolu kon la suñ tubaab wax mu ne may yi nga xam ne ak ay xéewal la bu ñëwee na fekk ma ànd ak xel moo xam ni su tàbbee ci sama loxo dinaa a jëfandikoo ci na fu mu ko tudd ci xasida yi moom Cheikhul Khadim Khadim mbokk bi dafa laaj ba tey nii tumma nidaami illa saabi loolu cheikhul xadim da cay wax ni yow suñu borom nag ma ma màngal màng maanaam na nga na na nga ërtal maanaam na nga jël mi nga xamee ne si moom mooy lépp loo xamee ne si al nidaam moom mooy doxalin waaw mooy maanaam loo xamee ne si maanaam da ko tërale ay mbiram muy sukkandikoo ci yàlla ak alquran nga xam ni moom foofu la tëkk ndax dafa ne wallaytu lax wi kon wallaahi mudbiran lillahi bil qur'an qur'aani ni'mal munzilu sëriñ Tuubaa loolu wax neena na dox ak caaxaan yàlla waxu ci dara yonent bi da koy tere kep ko xam man nga yaakar sëriñ Tuubaa neena tere na la ko kon waro dugg ci lu leunt ak lu mu mënti doon moo tax sëriñ bi wax ne dumma nirami ila sa'bi manam lépp lo xam yàlla gërëm nako moy lu leer lo xamni ni bi sallallahu alayhi wasallam gërëm nako man cheikhul khadim ci la tek sama loxo te kep ko xamni yaangi tanal sa loxo ni ci man nga jëm ci ma ngi lay ërtal ci yoon wo wu nga jub ci waye yàlla la ci yàlla xiir kon dafa ñaanal ki nga xam ni am na yéene ñëw tàbb ci moom mu wëlbatiku nag xool yu baax yi mu jaar ci yooyee di ca dox doxinu wér woo xam ni yàllaa ko digle mbokk ñu dafa laaj salli ala saalixi wa huwa al muslixu assaadiq moom foofu la ko yemale assaadiqu sidqu salaatan tuslixu waaw assaadiqu sidqu salaatan tuslixu moo ko àggale mooy nekk ci lu daal ni جالبة المراقب واو لولو آه، بارينا اي آه، باري جام واي لوغرت ورم موي صلي جلل على صالحتي يونتي صلى الله عليه وسلم موي بروم سلغي من نكو جلي سيرن صالح آه، موم ميغا خامني وهو المصلح موم موي اجي يونال جيغا خامني موم موي ديفار لب لو باخ xam nga sayyiduna muhammad rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam sunu borom moo ne ko wa maa arsalnaaka ila kaafatan linaas waaye nag nadiran wa badiran waaw léegi nag mu ëlbati ko waat waxaat ko feneen ni muhammad rasulullahi walladina maahu ashidda ala alkuffar ruhamaau baynahum gis nga kon dafay daal di dikk ci ñaari melo yoo xam ni moom kon dafay sukkandikoo ci alquran mi nga xam ni moom lay dund moom cheikhul xadim ba nga xam ni kon léppam ba ci xasida yi ni ñu koy waxe digganteem ak alquran mi ngi melni dugub jun sokk ak dugub jun sokkul wala dugub jun sokk taw wala guñ ko wala dugub yoo xamni sokk nañ ko ak dugub bi nga xamni wal nañ ko ba def ko cere ba def ko tere njaañ tek nga xamni yow man nga sotti am soow legi nan wala nga jere sukkar legi nan man nga toyel nan naan as-saadiq mooy aji dëggal yi nga xamni euh sunu borom dajale na dëgg yépp ci mom xam nga dëggal dafa am solo moom lañ wax ne Seydina Omar euh, dëggal gi mu dëggaloon ba nga xam ni maanaam bu duggee ci benn barab saytaane bu fa nekkoon day jox daw ndax dëggal googu. wax nañ ko sax xam ngeen nii euh, li nga xam ne moom mooy euh, niil boobu nekkoon ci Égypte ba Seydina Omar toogee ci xilaafa ga la ko wax ni ko kenn dootu la joxo ci xale booy lekk ndax ñooñu ay jaam lan ni yow bis ni ko tey damaa bëgg nga dal man Omar maa la ko wax dëggal googu moo waraloon loolu. dëggal ga mu dëggaloon it mo taxone ba mu jébbuloo daal di ànd ak rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallam sayyidina umar Omar ñi nga xamni dañu ragal ñap dañu daal di wëlbatiku ndax dafa ni képp ko xamni ne gëmoo Seydina Muhammadu rasulullah dana takal sa bop ak sa baat gaay yu bari ñoom ragal umar mo taxone ñu daw tu dugg ci islam lolu kon xam nga ni deggal ga ak na mu meloon nga xamni gis ngeen mom ak tambulem lu yéwele woon moo tax mujj rek mo am solo waye sëñ touba neene na mujj ci lu rafet mo am solo am na ku dikk ci moom ni ko mujj gu rafet laa bëgg mën Cheikhul Khadim Cheikhul Khadim ni ko ñaanal mujje ci lu rafet mujj gu rafet mujj ci lu rafet moo ko gën ma ko ndax dégg nga xam sa mu ko waaw mu ne tax bàyyi tax la ci rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ko waaw mu ne ko moom xanaa ak mujjam ñaaw na de mu ne ko waaw Mbacke mujj gën a doy na waar mu ko loo ci xam mu ko bi nu xeexee ci xeex boobu nga xam ni wax si yi jam na ko xibra bi ba mu daanu te ndaw si waxoon ko ni ko boo ko rayee ma goreel la wax nañ ni keroog bi nga xam ni jël jël na ni xibra bi jam ko ci dënnu Seydina Hamza mu daanu julit ñi daw nga xam ni kooku moo nekkoon seen point fort wax nañ ni bi nga xam ni ñoom julit ñi dem nan rasulullah sallallahu alayhi wasallam dem ñu xam ne gañe nañ leen laata ñuy wàññeeku ndaw si dafa wëlbatiku ànd ak wax si bi ñu ñëw tiim Seydina Hamza xar dënn bi fil res bi matt ko di ko buusu waaye ba rasulullah yi ñëwee ak ni ma gisee jullit ñu leen di def du njoox seen noppi moo taxoon yonent bi sallallahu alayhi wasallam yàlla wax ko ni ko bu jullit ñi xeexetee bu xeex ba jeexee ñi faatu gaawantul nga dugal leen ci kàmb rek suul leen bu leen kenn sang bu leen kenn jullee ñu xeppee àjjana li mu ci jublu woon mooy danoo gisoon ni yéeféer yi bu xeex ak xare amee bu jàllee dañuy daal di ñëw ñoom di dagg seen nopp yi di leen sabote loolu defoon Sayyidina Hamza waaye keroog bu yonent bi sallallahu alayhi wasallam tiimee euh, bàyyi taxam boobu dafa jooy rangoñam laal na لجي لك سونو بروم داني واخ سيدنا جبريل نيكو وخال آه، محمد نيكو اه لي دا نقل نيكو لول اك ني مو اندال وايي خنا خاموني كيكو ديف بو ديم سوارا لول تخ مونوكو بيمو جيلي رس وي ماتكو ا آه، بيم كوي بوسو تاكو تي دريتو هم زدا تاب تي بيرم تو من رسنا من يالا ماي لك كو خامي سي توتي داي دم داي تاب تي موم موي هم سمت آه، لول موي لي ييغي لو خامي دكتل موكو ورا لول nga xamni sayyidna hamza non la meloon ci njambar Eh, kon loolu day jàngal nit ki nii lépp loo xam ne yaa ngi ca dugg na ci ànd ak yéene ju mat sëkk te na nga ca dëggal nag noonu lay def mooy alxasdu mooy jublu objectif mooy xasida ku jàng tubaab da xam lan mooy objectif objectif mooy li nit ki bëgg li nga xam ci xolam mooy xam ne dafa ne man mii tey jii damaa bëgg a nekk nangam te loolu feek nekkuma ko rek eh, du ma am jàmm loolu boo jàngee taarix ak histoire da nga koy jàngale nga xam ne am na foo xam ne wax ab almaan la woon euh, dañ koo mos a wax ni ko magam baayam moo ko doon wax ni ko wala maamam ni ko am na bato boo xam ni daa fees dell ak jamaa daa mos a tàbbi ci ndox mi bi mu ci duggee ci ndox mi ba léegi kenn gisu ko kon bato ba léegi génnul xale boobu nee na wax na ni day ci lay jàng di jàng ba jàng mare bi mu demee ba qualifié ba nekk mag moom yitteem yëpp mooy bato jamaa boobu waaye wax na ni di def na koy topp di ko topp di ko topp ba keroog mu koy gis fekk ci biir loolu mooy objectif mooy nit ki lu mu bëgg ba ci xataa ñàngoor sax jaani ñàngoor dana wax ni bu fekkoon dafa am yéene naaw dem ba fële ci kanam boo daggee bopp bi bopp bi foofu lay dali kon loolu mooy ak jublu goo xam ni moom la nit di jublu nga xam ne ak bëggam ci yàlla mën ko ca doxal bala xam li nga bëgg na ko saxaaba yooyu nag ci li na ci nga xam ne ak ngëm la lu leen ci fekkoon baax na waaye fi ñu toll nii ci jamono ji ñu toll euh, ni saxaaba yi doon dundee Euh, seriñ bi wax na ko léegi sëñ Aliou sëriñ Tuubaa da doon wax mag ñi ni leen roy leen saxaaba yi ñax ndax ñooy seen baay ci diine roy yi ñax ñooñu seen bàyyi ci diine euh, xam ngeen ne bi mu nekkee gànnaar ci Sarsara mag ñi doon ñoo di ko fekkee ak Jolof te euh, bandi yi di leen dogaale muy agresseurs yi di leen dóor di nangu seen xaalis xam ngeen ni gànnaar am na yoon woo xam ni kenn ci magi sëriñ bi nga xam ne si maanaam mbooloo mi sëriñ bi lañ bokk ci fere yi mas nay dem wax nañ ni alal ji mu yoroon di ko yóbbul sëriñ bi buy addiye ji dafa ñu leen ni xanaa ngeen faat sama bakkan waaye wax nañ ni sax dagg na loxoom muy benn baaraamam waaye moom addiye jëm sëñ Tuubaa moom na àgg rek kon loolu mooy objectif suñu boroom subhaanahu wa taala yonent bi salaa sallam moo sàkku ci jun boroom ma liggéeyal ko man xaadimu rasul kon léegi loolu tolluwaay la lan moo waral loolu ba tey <coughs> xam nga fekkoon na fi ay nit ñuy ay nit yàlla di ay nit ñu baax fekkon na fi tamit ay góor yàlla yo xamni dano jaayante ci suñ boo yoonu suñ borom subhanahu wa taala xam ngeen ni bo xolé histoire comme limu jangale euh dinu ñewé ci ifeq Soudan nga xamni mom moy fi ci sunu rew nga xamni ci Sénégal euh ñi fi nekkon di fi wote lu jëm ci yàlla bo jëlé ko melni Cheikh Omar Fouta tal nga xamni wax nañ ni manam xare na téméri xare xex xex yu bari yo xamni jankonté jànkoonte na ko ak tubab bi ci xex ngir islam. te it di ngir yëkkati baatu laa ilaaha illallah nga gis ni kon fi mu mujjee ak tubaab bi gis nga pinju mbàññam nga xam ne maanaam kenn gisatu ko xamatunu ci fu mu jaar nga xam suñu borom moom moo ko yëkkatil boppam kon loolu dafay wone tamit maanaam ak bëgg goo xam ni nekkoon na ci moom waaye nag mastanaxtum la doon liggéeyal yàlla muy ragee dëgg dëgg yàlla moom Cheikhul Khadim moo ko def euh, léegi nag ak bëggam ci rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam dafa demoon ba toll foo xam ni euh, dootul dootul rak dootul mag dootul soxna dootul njaboot dootul lenn ni mu ko firndelee mahat yel muxtaara sa yi sayidina xubbil magaani wal ahlina wal walada nee na alal ak ak njaboot ak meññent ak lépp loo xam ne ressource la ak lépp loo xam ne dafa àddunaawoo wala lépp loo xam ne si maanaam nit da koy jël di ko bànneexoo ci kanamam muy loo xam ne mën na koo may dara nee na sëriñ bi nee na man rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam laa waaye nag la ca yéeme mooy la mu wax ni dammi wa ahli fidaa'un um lahu sama deret man Serigne Touba sama njaboot maanaam jël naa ko jox ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te nag soxlawuma ci dara xam nga ki nga xam da koo jël jox ko ni ko lii bul ma ci joxaat dara bëgguma nga ma lay jox nga may joxaat wala ma ciy def am lenn lu ma ciy bëgg kon foofu ak mbëgg moo toll noonu ci moom ba nga xam ni demoon bëggam rasulillahi tolloon na foo xam ni euh, demoon na ba jaf ko ci rasulillahi nekk ci moom ba nga xam ni bu masaan di warga wala ñu defaral ko café bu ñëwee mën na jee sotti suukar ba muy liddeeku mu koy naan waaye du yëg loolee ngir cafka gi mu am ci sayyiduna muhammad rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam loolu demoon na ba ci moom ba nga xam ni nekkam gi mu nekkoon ci jaareem bi mu ñëwee xam ngeen ni sëriñ bi fukki at ak juróom yi mujj yi nga xam ni nekk na ko ci zahir ci àdduna euh, nekk na ko jaareem wax na ni foofu la rasulullahi sallallahu alayhi wa fekk na ko fa am ak moom fukki fan ak juróom ci bayt rasul foofu nag la sëñ Tuubaa di wax naan shafahani rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam rabbi asxaabaka bil himmati wala turabbihim bi dars sëñ Tuubaa dafa ne tuñante naa ak rasulullahi tuñante naa rasulullahi dafa jël ñaari bëti umam sëx ko suma ñaari bëti umam jàkkaarloo man samay bët ñu huit kilo man ak moom loolu ñuy wax huit kilo loolu la def ak moom rasulullah salaa sallam nee na mu ne ma nag sa borom nee na rabbi asxaabaka bil himmati yaral nit ñi ci yitte wala turabbihim bi dars boo leen yar ci am njàng ndax njàng fi ñu toll nii maanaam nan ko arrêté na gaa yi jaayante nit ñi jaayante ak yow ñëw koo bëgg moo tax Sëñ Tuubaa daal di wax ne képp koo xam ne bëgg nga li ma bëgg fal yasir maana waaye képp koo xam ne am njàng moo lay yitteel te moo la fi indi léegi nag demal nga xool feneen daal dem léegi nag loolu euh, euh, sëriñ بشير ما كده فنيت اللي جي منه بعد خدمنا ذهب الجل وبقي الجل ليرنا الأب تنبولو ما دفع من يوم دنو دب واي لنيون دنو دس واي ينا من دنو مجيوال بتكو خلاتني نيوم كت أمنا نيا كان سن سن دم منا موسين نقلم تي دار درسي بكم رسول الله تلولو أه، لما أم دك كتو دي لبم رسول الله لكم أنا سيكسين مور مصطفى بچ سيرني محمد المرتضى يب sayyiduna muhammad rasulullah ba Seex Saalix mi ñu tudd léegi te tuddoon léegi tur yi nga xam ne dafa dikk léegi ci jaalibatul muraqib as-saalixul muslix boobu nga xam ne rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam la ciy jublu ba nga xam ne moom lu mu am rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam la ko jox muy ak njabootam ba ci lu góor yéeg yu góor yëpp ay dëkkam tamit xam ngeen ni dëkk yi bokk na ci doon na ci barkeeloo ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci ay dëkkam gis ngeen diggante Touba wala diggante Medina Makkatal Mukarrama ak euh, diggante Medine ak diggante màkk ak fii nga xam ni moom mooy euh, Baqiya ak barab yi nga xam ne si tamit maanaam yooyu yëpp da koo roje rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ndax bi maam Cheikh Ibrahima Fall ñëwagul ci Serigne Touba euh, mbooloo ma fa nekkoon dañoo ñëwoon doon jàng waaye bi mu ñëwee ba wane yoon wi nga xam ne moom lañ war a toppi jëmm ji ngir ñu mën a jëriñu ci moom ndax xam nga nit mënul waxaal ni man damaa bëgg ngeen doxalee nii waaye nee na suñ borom ci moom moo ne ma demal nga ànd ak moom jàngal nit ñi nan koy toppee ngir ñu mën a jëriñ ci moom nee na ñëwee nag mu daal koy ubbil yoon wi. ba kam rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam euh, àggoon na ci euh, lépp luy melale ci rasulillahi sallallahu alayhi ndax xam ngeen ni gabon ba mu fa nekkee ba gàmmu ñëw wax nañ ni moom sëriñ moo jugal boppam wut lu mel ni am petax màggale ko rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ñu lewetal ko ndax moom daawul euh, rendi ñu leetal ko ko sëriñ bi daal koy seet ban wax ko ne ko am na ko tudd Momadou mu jox ko ko ngir màggale ko bisu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam boobu ba noppi nag di daal di gàmmu gàmmu nga xam ne kon moom ba mu koy def boobu ah boobu yéeme woon na lool nga xam ni euh, tey jii boo dee xool sunni yu ak ñi nga xam ne dañuy nekk euh, ñuy contre islam wala ibadu rahmaani wala yeneen xeet yi danoo jàpp na ñoom sax danoo dem ba gisi ko noonu loolu bidaa waaye kon li nekk ci bidaa ci àdduna dafa bari bokk na sax lii kon tey ñu dugg tey bidaa ndax am na koo mas a fekk benn sëriñ bu baax màkkatal mukarama mu yor mu ne ko ah haja shirk bidaa mu ne ko ah eh, ay na taskun mu ko yow fan nga jëkk dëkk mu wax ko ba dëkk bu sori mu ne ko bi nga ñëw lan moo la indi mu ne ko dama dugg oto mu ne ko kon yow yaa ngi ci bidaa ndax yonent bi saa sallam bàyyi fi oto bàyyi fi tamit lu mel noonu nga xamni ne si tey jii moom jël nit ñi kon nonu la bëgg woon rasulullahi sallallahu alayhi wasallam sallam bëggam rasulullahi sallallahu alayhi wasallam debon na ci bi nga xamni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bo demé ci gis bu ne leen ila al bayt al haram likay kay yasira islam mustadrajun min al anam li jundihi bi azmi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ne rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam moo wax Sëriñ Tuubaa ni ko bis boo ñëwee makkatal mukarama wala medit mun a war a dinaa jug jox la loxo te àdduna tukki moo tax kon mu ne naxaa ila al bayt al haram li nga ma liggéeyal man yàkkamti naa laa gis ba jàkkaarloog yow ba jox la sama loxo loolu la sëñ Tuubaa yi wax ci jaawartu ni baha bi allahu kiraaman xurra wuy ba xaye nabila sarra loolu keroog bi nga xam ne sëñ Tuubaa nee na baha bi allahu puukare woo na kan moo puukare woo yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fan lay puukare woo ci nit ñu weex ña kan lay puukare woo man ahmadul qadim xaadimu rasul man nit ku ñuul ngii sama loxo lay yëkkati ba ca kaw ni ku mas a am ku mel nii sëñ Tuubaa moo wax loolu nee na rasulullah loolu lay def bu yoomal qiyaamee ba yëkkati sama loxo ca kaw ni kan moo mas a am ku mel nii kon loolu bu bëri woo la kon nag bëggam rasulullah sallallahu alayhi wasallam moo tax mu ni kon léegi kon day toog moo tax mu ni xal bii lahu fi itaabi jismi takraaru li annahu lil huda wa nuuru jarraaru ci raaya nga xam ni dafa ni sama xol mi ngi yedd sama yàpp yaram ngir ma jug siyaare sayyiduna muhammad rasulullah sallallahu alayhi wasallam waaye nag ci samay tagg nag ak ci samay li nga xam si moom laa koy liggéeyal ci laa koy saxal ba nga xam ne si du ma ko teg muy li mu waxoon rek salaatu sitta bi ma xisita taati xibata maasdaay bëggam rasulullahi nag moom moo tax juróom-benn weeri yàlla juróom-benn weeri sayiduna muhammadu rasulullahi salaa sallam gis ngeen muqaddimatul xidma lépp dañoo takk rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni Cheikh Abdul Xaadir Mbàkke yàlla yàlla yokku leeram wax na ni bu fekkoon ni yàlla kuy jeexal la bi Sëriñ Tuubaa bindee muqaddamatul amdaax lay jeexal tàkk ndax kon li mu wax ci rasulullahi foofu nuñ yàlla bëgg na leen bëggal na ci boppam wala daal di waxaat ci yeneen bari mu ne nag ida katabtu ihtadda arsul baaqi wa sabaxa malaikata tibaq bokkoon na ci bëggam rasulillahi salaa sallam moom cheikhul xadim ci li mu bind ci xasida yi nee na bu ma daan jël sama xalima ni ko sapp ci daaji aras day jaay kursi yu jaay malaaka yi sabbal ñu tàmbalee mu tagg kon loolu tamit dafay wone bëggam ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci ni nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doxalee na ak diggan ak moom euh, moom nag nee na bi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam saafoonte ak moom duñante moom digal ko loolu ci la daal di jug nag daal di takk ndiggam nag xam ne nag fi ñu toll nii toog amatul gis ngeen ni xare ba Badar ba nu xare euh, xare ba ba mu metti euh, bi ñu ñibbisee ci suba si maanaam bisu dimanche la ñu indaale seen i góom ak seen i jar-jar ñu commencé faj seen bopp di toog سيدنا جبريل مو نيو سيدنا محمد رسول الله نيكو دا mel ne laa wéer ngànnaay mun ko waaw mun ko déedéet da ngeen war a jug dem xeex xasatu xamraul asad foofee la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni nanu jug wax na ni amoon na saxaaba yoo xam dañ doon bootante ngir bëkk sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngir dem fekk ci xare boobu waaye nag nga gis ni mom kon bi nga xam ne si ñëw na nga bëgg Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dafa ni na ñëpp tok man dong ba dem ndax kharajtum min jihadil asghar ila jihadil akbar ميوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم إسلام دينا رسول الله moo ko waxoon ca xajjatal wadaa ne tey jii laay mujj taxaw ci fii di wax ak yéen ngeen may dégg tey laay mujj jottali baat boo xam ni yéen a ngi ci jot yéen jullit ñi tey jii laay mujj wax ci ay kàddu yoo xam ni da ngeen ciy jot ma leen di digal ngeen di def tey ngeen di mujj ànd ak man ciy jotaay tey laay mujj nekk ci seen i barab tey maa ngi leen di tàggu nag di dem ci barab yoo xam ni barab yu sori la wax na ni ak bëggam rasulullah ak donn gi mu ko donn wax nañ ne ca njaaree mas naa woote woote boo xam ne moom sëñ Tuba daal di wax ne man ni rek tey laay mujj yor kaamil bii taxaw ci seen kanam di leen waar tey laay mujj wax samay kàddu ngeen ci jot moom sëñ Tuba Xaadimu Rasuul maa ngi dem ci barab yoo xam ne barab yu sori la yu lëndëm yoo xam ne si ab tukki la boo xam ni tukki bu yéeme la kon waajaloon na loolu boppam ba noppi di ko digal ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk noonu la bëggee woon Seydina Muhammad Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ci ay doxalam nga xam ne si moom da ko cee donn donn gu wér حجر وداع بابو نك موي تاغوت بابو رسول الله واخوت سيرن توبا دال كوي دغال تي نيغا خامني سي موم رسول الله صلى الله عليه وسلم تاغو نيغا خامني سي نيوم لا نيكالون بايي لين تي ليغا خامسي موم موي ادو واي ليرال كيكو يالا ليرال لا ميرم غا خامني دارام دو ياكو دا دون واخ سونو بوروم نيكو لو خامني سي بومو كو جوخي دنج كوي جيلات بول موكو جوخ لولو تاخ مو ام رحمه القطباني خمغا رحمه القطباني شيخ عبد القادر الجيلاني موم لا يورون دي فك بوند نيغي سونو بوروم kooku xam ngeen ni bokk na ci góor yàlla yu mag yi nga xam ni dafa àgg ci àggukaay ba waxoon na ni euh, sunu borom daan na wax xaajteeg moom mu naan ko am na la am naa loo amul yàlla naan ko lan la mun ko am na ndey baay bi mu faatoo moom Cheikh Abdou Khadre Jilaani euh, waa kër ndeyam dañ ko doon xëccoo ak waa kër baayam ndax li mu am leeri suñu borom yi yaayam moo dugg ci biir ni ko umul xayri mooy ndeyam umul xayri ni ko xam naa la bu baax ndax man maay sa waajur wu jigéen damaa bëgg nga àtte maag sa waa kër baay ndax ñoom kat dañ laa bëgg jël yóbbu la denc la ci seen bopp ba bëgg nag nga àttanu ndax balaa jàppante am ndax xam naa la bi mu génnee danoo fekk ñaari néew yu tëdd muy kaylaani ak jëylaani ku nekk jël benn suuli euh, nga gis ne kon xam kooku am na àggukaay ci àggukaay ba wax nañ ni amoon na benn taalibe mu di wax tayfur tey fur dafa mané wo so démé ci xasida gogou seigne touba nan ya rabana bil mustafa wa xabdatu rijaali tay fur mi ngi fofu seigne touba na don ñaan yalla di gor yalla yoyu euh tay fur moy ñettel ba waye ablis bus bustani bokk na ca nga xamni ne si moom dafa mané won ak euh yu ak ñoo nga xamni ne si dañoo won woon lool ay nitu yalla la ñeent la ngor juroom juroomi gor yalla tay fóor dafa mané won lool am benn taalibeem bo xam doom ñum am mu faatu mu ne ko yow tey ngaa ñëw ma yóbbu la ci sama sëriñ Cheikh Abdou Khadre Jilani nga wax ko nee na mu wax ko ni ko man de damaa yor alal waaye damay def doom ju ma am mu faatu muy góor ak jigéen ma bëggoon nag nga ñaanal ma ma am doom ju doon sama alal ji mu ne ko waa bisimilah baax na daal koy ñaanal soxnaam toll diggante bi mu amee doom doom ji nekk jigéen mu dawale doom ji ànd ak soxna si ñu ñëw jox ko Cheikh Abdou Khadre Jilani ni ko tudde ko ku la neex Cheikh Abdou Khadre Jilani wax na ni fi mu leewoo xale bi war koo tudd bëgg koo tudd ndeyam umul xëy suñu borom yebal malaayka ni ko demal nga jëlal ma ruuxu xale bi waaye malaayka mi jël ruux ñëwul Cheikh Abdou Khadre Jilani ndax borom tàngoor la waaye malaayka bi dafa ñëw taxaw te ñemul dellu si yàlla te yóbbu ruux bi waaye dafa taxaw ci bunt bi taxaw ci bunt bi mu yàgg mu roof ko tàngoor mu teg xale bi dugg ci wane bi daal di bëgg xëppoo ndox fi muy waaj a pour ko ci xëppoo ndox rek malaayka mi këf ruugi rek dem bépp Cheikh Abdou Khadre Jilani paree rek ñëw xool xale bi xam ne xale bi ruugi dem na mu ni nangu ci aw asamaan daal di naaw tag ko xat malaaka mi ci asamaanum ñeenteel nangu ruugi delloo ko xale bi sëñ tubaa nee na yemu mu ci xam na maay kan boo liggéey di wax kon kuy sëñ tubaa xam euh, àgg ci àgg ci yonent bi te kooku sayyiduna surtout sayyiduna Muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam moom doon na wax ni su ma bañul woon kersa su ma waxee fa bu nekk la mooy tontoo te loolu def na ko benn nitu yàlla bu ma koo leen wax naan moom ñun yem yi ni ko kay tashabiha shifati yonent bi sallallahu alayhi ma taalalee sama loxo nga génne ko ci barrière bu jox ma loxo kooku tolloon na foofu ci sayyiduna Muhammad rasulullah waaye ñooñee ñëpp ci seen àgguwaay ba ci Busayri mi nga xam ne tagg na ba loxoom am loxoom urus yooyu yëpp dem na ba dajal sëñ Tuubaa ni kaabun wa xasaaru wa Busayru xat baraw wa kulluhum shi'ruhum nuurun wa asraaru seenu tagg ak seenu yëpp yem na ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak ci man foo xam ne si sës na ma rëkk ma sës ko rëkk mu jaxasoo ak man ma jaxasoo ak moom loolu la wax ni xarakaat yi wa sakanaat yi maa sayyidina Muhammad rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam sama yëngu man sëriñ Tuubaa ak sama dal jaxasoo naa ak dundug rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam doon na benn feeg mi ngi fi rek du ma fi jóge loolu nag dafay firndeel ay mbir yu bëree bëree bëri nga xam ni euh, dëkk bi tey jii loolu la Cheikh Abdoul Ahad Mbacké waxoon yàlla yàlla yokk leeram bi muy defar mbarabu Sëriñ Tuubaa bi dafa waxoon ni ak di ko subul summil mbubb jumaa ji di ko solaal ak beneen mbubb nanu góorgóorlu ci liggéey bii mhm. muy liggéeyu Sëriñ Tuubaa bii ndax moom day ni ma mel ci Rasulullahi sallallahu alayhi wa kenn dama ko ci waaye damaa bëggoon koo xam ne dem nga màkkatal mu karama dem masi a war a sukk ca bar rasulullaay nga xam ne fii rasulullaay moo fi tudd waaye ku ñëw Tuubaa gi dama bëgg boo xoolee ba ñëw ba sukk ci barabam bii xam ne fii xaadimu rasulullahi moo fi tudd nga nga xam ni mbir la moo xam ni dafa jaxasoo woon ci moom ba nga xam ni lenn lenn loo ci nekk rek loo jàpp rek loolee ngay daal di gis daana wax ni képp koo xam ni rasulullahi amal na la bor boo gisee sëñ Mourou Moussa mën na laa fay am na benn bis ci njaareem mu ne nan ko waajalal ndax rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da koy gane ñu jékki-jékki sëñ Mourou Moustapha daal di ñëw mu daal di wàcc lal ba jox ko daal di tok suuf moom sëñ Tuubaa Xaadimu diko di bopam diko boppam di ko berneelal boppam loolu la muy firndeel moom mooy jaxasoo naag moom Muhammad rasulullahi ci barab yëpp demoon na ci ba rasulullah sallallahu alayhi wa sallam daan dikkal muy Seydina Jibril daana soppiku melaw daxiyatul kalbi daxiyatul kalbi saxaaba la woon ci saxaaba Seydina Muhammad rasulullahi te pourtant siiwul am na xare yu bëri yoo xam demu ci waye soppoon na Dihya ndax sel gi mu selloon ak bëggon gi mu bëggon rasulullah sallallahu alaihi wasallam jëmm jooju la doon soppeeku bu ñëw ci rasulullah yenn saa yi yonente bi sallallahu alaihi wasallam génn ñu leen kan mo romb fi sank ñu ne ko ñun de Dihya mo romb di nuyu mu leen dede sayyidina Jibril la jëm mi Dihya lay ñewé ci man Sëriñ Tuubaa khadim rasul doon gi mu doon rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci lool wax nañ ni Cheikh abdul Karim Touré mom mo daan jël jëm sayyidina Jibril bu ñëw ci Sëriñ ma sa ñëw ba kenn nak bu serigne bi daal di laajtee mbooloo mi ñu leen eh, ki fi génne woon sànq xam ngeen ko ñun ko Cheikh Abdou Karim Touré mu ne Seydina Jibril la jëm moom lay daal di jël ci man buy ñëw ci man man Serigne Touba Khadim Rasoul kon loolu lépp dafay firndeel moom bëgg gi mu bëgg Rasulullahi sallallahu alayhi wasallam ba yonent bi sallallahu alayhi wasallam wuyu ko ci loolu nga xam ni yàlla bi sax ci boppam da cee feeñ xam ngeen ni bi mu ñëwee Ndakaaru بندقل كتي كسر بوابون غخمني في لنكو دقل غخمني في لأيوخي نان إذا ذكر ذلك المبيتة وذلك العميرة والصبوطة طرت إلى الجحاد بالأرماحي نفسي ولك الذبع عن الماحي وهذا مثل بنيرا بوفات لكو نيت قدين دكاروي وإذا ذكر ذلك المبيتة فران كما فران تكسر بوابو وذلك العميرة والصبوطة نينا غوبيرنير بجوخي دكري ني دقل مفو والصبوطة أكتساخ كما فسخ nee na tarab ila jaxari bil armaaxi sama xol day bëgg a jug mu daal di buur song leen waaye nag nee na nafsi walaka dabba anil maaxi damaa doon rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam keroog bi nga xam ne bi mu dem taayif dëkkunu ndijaayam boobu nga xam ni fa la yaayam bàyyi ko nga xam ne dafa doon dem laqatu ànd ak Zeydu xale boobu nga xam ne dafa soppan rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni keroog bi ñu koy sàmm Zeydu la doon kale xeer yi di leen défense ba mujj ak ñu toj arikaatu rasulullah sallallahu alayhi wasallam deret ja laata muy laal suuf sañaa jibril ni sunu borom ni ko soo yeexee dinaa génn sa tur ci malayka yi doo bokk bu deret ji laale suuf mu gaawante loolu waaye ba mu xamee ba ximmuliku sañaa jibril ni ko sa borom nee na nga wax loo bëgg ci ñii ndax kat naa noox moo la fi jiitu woon ba ko noonu ñu sonalee yàlla da koo wax ni ko waxal loo bëgg mu wax li mu bëgg ñu defal ko ko muy tuufaan sayyidina Saalix lan ko waxee lu mu bëgg ngelaw la laaj ñu jox ko kon nag waxal lan nga bëgg ci ñii moo mënu jéggal leen ndax dañ maa xamul suñ ma xamoon duñ ko def sëñ Tuubaa nee lool na loolu laa dollu ci moom loolu laa dollu ci Sayyidinaa Muhammad Rasulullaahi ba nga xam ni euh, tey jii dama leen a jéggal gi mooy la dafa ànd ak ñoom ba ñëw dëkk bu ñuy wax njole biñ ko jëlee foofu ñu indi ko Lamberne barab boobu nga xam ne wax na ni sëñ Tuubaa am na fa lu toll ak juróom-ñaari at kon daanaka yoonu géej gi yëpp ginnaaw julli géej gi ak barab yooyu foofee la sëñ Tuubaa gën a yàgg muy booru dawme gog nga xamné ci fofu ay côté Accra la wax nañ ni barab bobu wax nañ ni benn bis dañ ko jël yóbbu ko ci ni tolni garab guuy moy garab gu rëy dañ koy nettali ci ci ci ci ci ci yoonu géej gi. wax nañ ni binu ñu sëriñ bi sëriñ Bassirou Mbacke mi ngi koy nekk ci meneen mbaaxu xadim néna euh dañu jël sëriñ bi tak ko ci yor yor wahabali wahabu fi sulasa ma yukhruju asrata wa sulasa sëriñ tuba néna bi nga xamni jël nañ ma ci bisub talata bobu ci yor yor yobuma ci benn barab xam ngeen ne natt bi bokkon na ci du leen du leen laaj mukk lan ngeen may def ak fu ngeen ma jëmee ñu ërtal Sëriñ Tuubaa indi ko ba ci benn garab ñu daal di sànni buum daal koy laaw takk ko ci garab ji fukk ka ñett na tiim ko ku nekk ñu ne ko tàkkal fenn tiire sëriñ bi kenn ko nekk fa nga tàkkoon sëriñ bi ba bal ba yëkkati ko daawal buti ko yow dal ci sa kaw faatu la loolu mooy ajaarinel qahaaru min jumlatil ida wa xaanathumul armah wal ma sëñ Tuubaa nee na suñu borom mooma aaral boppam ci bis boobu kenn nekk fa nga doon dàkk ci man di ma ko tiire moo dellu ci yow léegi loolu dafa koo jënd aralal la ko jënde muy kër yi àjjana yi nga xamee ne si yéeféer yi nga xam ni ñoom seen kër yi àjjana day booy sëñ Tuubaa nee na bi ma ko yàlla jaayee ma jënde ko natt boobu ba ma pare rek yàlla ne ma kër yaa ngi noonu ma ne ko xaaj naa ko ci digg bi jox ko rasulullahi addi saxaaba yi mënu ko yow a ah, kër yi day boo fekkee xaaj nga ko jox ko addi saxaaba yi sa waa kër day am na ay kër ndax laaj nga moom moo jox leen ko ndax yaa wax ne sa altuhu wa innahul mën naanu durran biha taxlulanal jinaanu mënu ko waaw dencal ma ko ba ëllëg bëri na jinne malaaka teew ba yor suuf leex génn ma ànd ak sama mbooloo ñëw su ëllëgee ma laaj ko suñu mu jox ma ko bu boobaa ma jox ko ñi nga xam ne ñoo doon xëy ci man te mënuloon ma dara bu guddee ñuy fanaan ci ma dara ma jox leen àjjana yooyu ndax ñu rus muy kooku nag kon xam nga ni doon na rasulullah ci boobu fal na nga xam ni daawul fayantoo rasulullah bokkoon na ca ci ay mbiram wax na ni ci këram amoon koo xam ni danaan bale di fa buub di ko sotti di ko def di ko def di ko def ba benn bis gisu ko yonent bi saa sallam laajte ko ñu ne dama ngeen dem nemmeekul ma ko ñu ne ko yaa rasulullah kooku dafa mel ni sa àq moo ko dal mun lu ko dal mu ne dafa feebar de mu daal di jug waaj ànd ak saxaaba yi ñëw ci moom di ko seet si bi mu ñëwee ba nuyoo ñu ne ko ah am na ku lay seet de mu ne kan la ñu ne ko Muhammad ibn Abdullah ndax ñoom bañoon nañ ko ba nga xam ni nangu woon na Muhammad rasulullah yonent yàlla déedéet dañ daan wax Muhammad doomu Abdullah da moo lay cheikh mu ne bërit fi mu tëdd ni ah Muhammad mbaaru daf fay fayu si jàpp leen ko de ndax man damaa gaañ ndax dama tooñ naa ko tooñ ñu bari ñu ne déedéet yonent bi saa salaam bi mu ñëwee ni ko dama laa gëj gis lool la nga daan jëflanteeg man ma gisatuma ko ma xaw koo gëj ma laajte nag ñuy na ngaa tawat may ñëw di la ñaanal yàlla la yàlla yëkkati allahu akbar xoolal loolu waaye suñu jamono ñu ñu toll fi ñu toll nii xool leen rek média yi waxante yu bon yi kenn ku ci nekk di filmer moroomam di ko génne ñi jël audio yi kenn ku ci nekk di jël secret moromam di koy daggo daggo da ko tasaare kenn ku nekk boo xamee sa morom safaan nga daal koy wax boo ko xamul nga sosol ko te yooyu bokk ci kabaayir yi gën a màgg euh, mbokk mu mel ni kon ab jullit li mu war a def moom mooy euh, roy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam roy saxaaba yi li ñu war a def moom mooy fexe ba suñuy jëm mu mel noonu noonu la sëñ Tuubaa defee woon nag nga xam ni ñoom noonu lañ meloon wax nañ ni euh, am na ci kenn ci kilifa yi ku fi mas a bàyyi ko sëñ Mourou Moustapha dawal ab oto ñëw ba ci jumaa ji mu gaare wala ci barab bi bi nu waajalee kilifa googu ba noppi sëñ Dame Abdourahmane nga fa wax nan ni ak sëñ Mbàkke so bi nu noppee ba noppi moom mu gis ni ñoom amul waruwaay daa ñëw ni sëñ Dame euh, yow de daa di wax safoor bi ni ko dem nga yóbbu sëñ Dame ba ñëw boo ñëwee yóbbu sëñ euh, sëñ Mbàkke Buso mu ne ko déedéet ndax moo mag ndax moo ma njëkk a jébbalu dama ko ba noppi muy bi ñëwee ba noppi nag mu ne ko kooku moo ma gën a jege Sëriñ Tuubaa Euh, gis nga kon xam nga ñoom dañoo yéeme nga xam ne kii doomi Serigne Touba la certes nga xam ne moo fi nekkal Serigne Touba li def ay nijaayam ak ay magam ak ay baayam ak ay ñeneen ñëpp ñu nar a ànd nag moom takk seen digg jaayante ak moom fas yéene liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon liggéey bu mel euh, feeñ na ci xasida yi ndax wax na ne sama xasida yii da cay wax lu yéeme nee na toq daayu xasida yi nga xam ne xasida yi ak ñi xeex woon ba dar seen deret suñ ko peesee benn nañ ci boroom borom maa u i ka dima u shuhada loolu la Serigne Touba te xam ngeen ni ñi demoon badar yàlla moo sippiku ci ñoom dafa ne wala taxsabanna alladina qutiluhum fi sabilillahi amwaatan bal ahyaan inda rabbihim yurzaquun ñi xeexe woon badar yonente bi sallallahu alayhi wa sallam suñu borom moo ni ko ñooñu yàlla topp leen dara ginnaaw loolu sax bu fekkee ne dafoo doon safaan sax yàlla jéggal na leen waaye benn saxaaba rek dafa mas a juum ci loolu ñu koy wax xaatib ibnu abi baltaata al badri moom mas naa bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di waaj pour ubbi makka moom mas naa feeñal mbiru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ni loolu lu kéemaane la woon loo xam ni mujj na ko rëccu kon ñooñu noonu lan meloon di ay nit yu baax yoo xam ni danoo nekkoon ay nit yu sell yoo xam ni seen jëf dañ koo rafetaloon noonu la Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul nag doon ne ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ba nga xam ne léppam day yonent bi sallallahu alayhi wa sallam guddeem ak bëccëgam ba tax na euh, gis ngeen maam Thierno Ibrahima Faty da koo digaloon moom sëñ Tuubaa ni ko fu dimanche jotee muy guddik dimanche muy guddik altine na nga def guddik yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba léegi daaru mus ko def ci bayteg maqama nga xam ni kon ak dañ koy def ak gàmmu doogu ñëw kon nag bu demee ba nga xam ne si kenn ku ci nekk naan di bakar feggu naan maa ko muum maa ko féetewoo loolu nag dafay bokk ci yu kéemaane yàlla nu yàlla defal dimbal euh, tawfiq bu baax a baax mm-hmm. kon xam naa rek euh, ñi ngi jégluwaat bokk yi ñu xaaraat tuuti insha allah joxaat ñaa lu ñu amaat ay yëgle yu nu yëgle waat yu jëm ci liggéey bi ini uxaadibu nasaratura fi ardim li maliki murtara ini uxaadibu nasaratura